إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري bokki julit yi ñi sétane ci adina wërngal kep ñoo and ak yeen di yëkëti kaddu di ci jital sante bur yalla di ko ñaan mom suñu borom mu dolle julli ala qiblatil arwah di Maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga صلاة وسلام بو خمني دني باوانا كخبو باغتي كيب كو تك ساتانك با صح كو تغول ساتانك على الصراط المستقيم يالا نبور يالا بولا نيو تي تك سانتانك على الصراط المستقيم ايوا دي نيان سونو بروم نيري باركيم اك نيري غيرم مام اك نيري ليرام يالا بومو دنج ديكو دوتي على ضريح شيخنا ابي العباس احمد التجاني اك مبول خليفام اك مقدمام ak mboole soppeem yaag beem ya ak mboole njabootam ga yàlla na bur yàlla boole ñu ca soppeem yi ci dëgg ñu ngi nuyu képp kuy ànd ak nun ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra e, tabarakallah ñi ngi woon ñi ngi ñaanal sunu sëriñ daara Seydi Ali Haradim Barrad al Fasi na bur yàlla di dolle sotti ca ruuxam gu sell googoo mboole ndondali leer ya ak ndondali secret ya ak ndondali may ya barke ya ila an yarisa allahu arda wa alayha e keroog mbokk ñi ngi daanele woon ci ñi ngi woon ci alfaslu thalith fi axdi tariqi rushdihi wa hidayatih maanaa ci troisième chapitre bi lañu nekkoon doon traité tuuti rek jàpp gi nga xam ni ca la jàppoon yoon wa nga xam ni ñi nar a jub mbaa ñi yàlla namm ci ñoom ak njub yoon woowee la leen di teg a chapitre bi koy traité ci la ñu toll ko defee nag kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax parce que itam nag ku am sëriñ bu mel ni euh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu euh, war ko roy dana baax ñu wax la fa mu jaar ak lu ci ne nan la ko daan defee dana la mën dimbali yow itam nga xam lu ci ne noo koy ak fu ci ne bo cey jaar ban teggin ban comportement won tëralin ak doxalin nga ca wara utiliser lolou nak ci la toll keroog ñi ngi daanele won ci wa bi xasabi quwwati halihi wa tahdibihi yakunu mazid wa talibé mom kem talayal kattan yi nga xam ni moom la sëriñam amee bu ñuy wax kattan nag mooy kattani ruux moo tax ñuy wax waaye du kattani yaram kem talaayal sëriñ bi nga àndal kattani ruuxam ni mu toll yow talibe bi boo góorgóorloo sa kattani ruuxu mën na ko jegeñ naka noonu itam sellal gi nga xam ni moom la sëriñ bi nga àndal di sellal ak i mayam yow mi aju ci moom boo góorgóorloo yàlla mën na laa defal lu ni toll mbaa ko nuru a ah, loolu moom yomb naa dégg ah, dañuy faral di wax naan alwaladu sirru abihi alwaladu sirru abihi alwaladu mooy doom sirru abihi mooy secret way juram te ku ne xam na ni sëriñ ruux lañ koy toppee moom la ñuy àndee ak moom kon ruuxam lépp lu ca nekk mën na rogalaat ci ruuxu taalibe bi bu taalibe bi góorgóorloo kooku amul benn werante waaw loolu nag moo tax mu ni woon wali wali hada qaala alcheikhu alkaamilu walqutbu alchamilu mawlana abdulqadir aljilaaniyu radiallahu anhu mushiran li hada almaana البيض منا بألف والفرخ لا يقوم ولا سبيل لمعرفة هذه تحصيلا إلا بالتعرض للتعريف بالشيخ تفصيلا فكان التعرض من أجل ذلك للتعريف بأشياخ سيدنا رضي الله عنه أكيدا ولتمام المعرفة بقدرهم مفيدا وبسبيل ذلك تأكد التعريف بأشياخه ليحصل التعريف بقدرهم فتعرضنا لذلك في هذا الباب واقتصرنا فيه على ما لا مندوحة عنه والله الموفق للصواب فأقول وبالله التوفيق مني خمجة آه شي عبد القادر الجيلاني nga xam ni moom la ñu daan woowee sultanul awliya dafa am wax bu mu waxoon Sidi Ali Haradim cité ko pour wane ni wilaaya moom lenn rek la te dëgg it benn rek la moo tax mu ni wali hada et c'est pour cette raison parce que buñ naan taalibe bu góorgóorloo mën naa am maqaama sëriñam mu ni wali hada looloo tax nag kaala waxoon al cheikhu sëriñ ba al kaamilu sëriñ ba matoon ca yàlla wal qutbu ak kooku nga xam ni moo di sang ba achaamilu sang ba nga xam ni ku ndar keppoon mboole cëri yàlla la daan na ko wax moom Cheikh Abdul Qadir da daan wax mu ni ما في الصبابة منهل مستعذب إلا ولي فيها الألذ الأطيب قالوا بغين دميتي الجامع لدور العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم بسيد محمد المشري رضي الله عنه wax boobu fa la ko waxoon woon ma fi sababati manhalum mustaadabun amul naanuwaay yi ñuy naan ci yàlla nga xam ni yëpp cofeel la bëgg yàlla la amu ci benn boo xamante ni bii ni rombu naa ko lu détam naa ko naan ko bamu jeex tak ma jàll ci benen lolou moy may yàlla yeb dajale naa ko tax sayyid Ali Haradim Barad al Fasi wutula dugal ak par parlo ci digeunte Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak Cheikh Abdul Qadir al Jilani seetal wi tag al al Kamil wal al shamil ba pare daj ni maulana Abdul Qadir al Jilani way way mos xam nga ni ki par wul شي عبد القادر نك تبدان واخ موني امول تي نان واي ني نان تي يالا بن بو خامني رومب ناكو لودل ني نان ناكو تبا يما لا تي غنا نيه لاي نان الا ولي فيها الالذ الاطيب لا تي غنا نيه لا تي غنا تي لولو بابا ماغا دون جونج مقام بيغا خامنتي بيري مبولا نيتو يالا ييب موم لا نيو بغون موي مقام الختميتي موم شي عبد القادر الجيلاني adonte gannaaw bi delu wat na ci gannaaw loolu moom ñi xam xam nañ ko waaye li am solo te concerné li ñuy wax rek moo di dafa cité benn wax boo xam Cheikh Abdul Qadir al Jilani moo dan daan wax moo tax naka jekk dama daan wax euh, jawahirul maani lambi bi xam-xam la kii moom waaw lam xam-xam la ah, ndax yim ci dajale moo tax waaw mu ni nga xam ni moo doon bu mat ba don sang ba nga xam ku ndar keppoon mboole yi la kan muni maulana Abdul Qadir koku nga xamni kilifa la ci ñun ñuko don wowe Abdul Qadir Al-Jilani ku amon sañ-sañ la ci pays suñu borom bi ila yawmina hadha ku am sañ-sañ la ci pays yàlla bi Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani dafa am sañ-sañ ci yàlla wallahi waye nak limi am sañ-sañ ci yàlla bés bu nekkit yàlla won ko niko sañ-sañ bi it malako jox te may borom aha fam jaar ak yàlla la amna bés mom Cheikh Abdul Qadir aysan benn jigéen ñëw ci moom fekk mi ngi nekk jigéenu wérul xale yi jigéenu wérul mooy jigéen une femme enceinte waaw waaw xale yi den déggul wolof ah jigéenu wérul boo ko déggee rek mooy une femme enceinte waaw kay foofu nga ngay xamee ni tubaab français tubaab arab moo ko gën a fasaxa waaw parce que fi mu nekk tey soo xoolee arab buy wax ëmb ci jigéen du ko jigéenal baat bi du ko jigéenal imraatun xaamilun lay wax du wax xaamilatun de déedéet parce que xam na ni góor du ëmb moo tax da koy jigéenal waaw da koy góoral mu ngoog da koy góoral parce que xam na ni góor du ëmb loolu tax imraatun xaamil la arab di wax kenn du wax imraatun xaamilatun su boobaa firiwul ëmb boo ne imraatun xaamila mooy jigéen bu yanu waaye ëmb boo ko déggee rek baatu xaamil la ñuy wax dégg nga wax ok bu ko defee nag Cheikh Abdul Qadir dafa am benn bés mu toog am benn jigéen ndeysaan mi ngi nekk jigéen wérul daal di ñëw ci moom daal di ni ko man de eh, eh, dama dama bëggoon nga ñaanal ma ma am doom bu góor Cheikh Abdul Qadir ni ko doom bu góor nga am maa ngi nii jàkkaarloo moom ak kuccu bi mi ngi nii ma jàkkaarlool doom bu góor ngay am ndaw si dem ba dara des lu am doom yàlla dogal mu am doom mucc doom ji di jigéen mu ñëw wax ko Cheikh Abdul Qadir ni ko yow danga ma waxoon ni doom bu góor lay am yàlla dogal na ma am doom bu jigéen a ah, man de yëf yi jaaxal na ma rek Cheikh Abdul Qadir dal di yuuxu tudd yàlla wallaahi wax na dëgg ndeke yoo yàlla subhanahu wa taala huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawir ndeke yoo rek buur yàlla mooy kii melal waaye du nit pour wax la diggante allahu akbar ak bi ngay wàcce say loxo yàlla mën na fi soppi ay dogalam moo tax ñi xam duñu wóolu mukk pexe yàlla aka jekk waaw moo ngi ci tariqa bi ci charte tariqa bi la bokk il faut ñu bàyyi ko xel waaw ko defee nag euh, Cheikh Abdul Qadir al Jilani daf daan wax radiyallahu anhu yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam مشيرا دان جنجو جنجو لهذا المعنى تي آه، في ني تول موي دان سو سانس دا فا ام واخ بو خامني دان نكو تي جنجو لي ني واخ نان طالبي بو غور غور لو من ام مقام سيرينم امنا واخ بو خام تي بير شيخ عبد القادر الجيلاني دان نكو واخ دان تي جنجو لولو واخ بي لان لا وون داف دان واخ موني البيض منا بألف والفرخ لا يقوم albayd ki nga xamante ni bii nii ab nen la min naa ci ñun albayda nen bi min naa ci ñun bi alfin day taxaw taxawaayu junniy waliyu mu ni wal farx cuuj bi nga xamante ni bii ni nekk boof nañ ko ba toj tan ko kooku laa yuqawwam nee na kenn mënu koo xayma kenn xamul nu mu toll kenn mënul ni nangami wali yu lay wecci wala nangami wali lay tollol kenn mënu ko ndax dooleem ci yàlla na muy toll mais nag li tax mu ni mushiran li hada al maana baatu minna boobu rek mu wax al baydatu minna parce que moom dafa bokk ci wali yu yàlla yooyu nga xamante ni bii ni ñoom la ñu tuddee ñi nga xam ni dañu amee ay maqaama yooyu ñoom dañuy naane ci yonent alayhi salaatu wassalaam te kenn du leen tëbb Cheikh Abdul Qadir bokkoon na ci nitu yàlla yooyu fokk nit ñi xam loolu xam nga ci biir wilaya daf ci am lu ñu tuddee muhammadiyuun wali yi dañu bare te wuute ay maqaama muhammadiyuun moy waliyu yàlla yi nga xamanteni bi ni dañuy am seen hadra ci yonnati bi alayhi salatu wassalam difa nan te nandale lolou moy muhammadiyun Cheikh Abdul Qadir al Jilani ci ñooñu la bokkon motax euh ndaysan Cheikh Tidiane radiyallahu an dan na wax muni gannaaw man ci ma'rifatu billahi ci xam yàlla neena ki top ci man ci xam yàlla gëna xam ñëpp yàlla moo di Sidi Mouhamed si ni ñu koy waxee Mouhamed ibnul Arabi Mouhamed ibnul Arabi ad-Damrawi mooy taalibim boobu nga xamante ni bii nii nii neen 24 ans la am bi muy génn àddina waaw radiyallahu anhu dañ ko rey ma nga ca aynu maadi ca booru way juru Cheikh Tidiane bu góor ak bu jigéen foofu lañ ko denc waaw dégg nga ak kooku bi mu paree ci kooku mu daal di ni ki ci tegu ci xam yàlla moo di Cheikh Abdul Qadir al Jilani Cheikh Tidiane ci boppam moo wax loolu pour wax la ñu ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom jàngaluñu parparloo musul deflante ak noonu parparloo kon ñun bu nu dugg ci parparloo xale yi lool na ngeen ci bàyyi xel parce que parparloo li mu mën a yàq daf bari ok su ko defé nak wax bi xam nga di nga dégg nga dégg ku melni Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu daan wax naan fa baydatuhu tuba'u akhi bi alf kon fa mal al farxi fi bay'in kalaamu nga dégg ku melni Cheikh Al haji Malik radiyallahu anhu daan wax naan البيض منا بألف bi alfin wan fi qiimata afraaxi tariqati la نك جك دغ بن لا اونغ دغ ندسان وي كات بدان كو عباراتنا شتى ومعناك واحد والكل الى ذاك الجمال يشير احنا دغ من عباراتنا شتى مود ديكسبريسيون اي مود ديكسبريسيون اي مود ديكسبريسيون اي شتى نيو ووتي واي ومعناك واحد لني واخ لا والكل الى ذاك الجمال يشير نك يو يوني لي مي بري بري نيب سي واجي xoolal Cheikh Abdul Qadir daf ni minna bi alfin wal farq yu yuqawam nen bi kii joog a jàpp sunu tariqa wala ki am yéene jàpp sunu tariqa aju ci ñun nee na boo ko xoolee peese ko ci yàlla day am doole junniy waliyu waaye ka nga xam ni nen la bopp jàpp na sunu tariqa ba ñu togg ko tërbiye ko jaarale ko ci yoon wa ba keroog mu dem ba ñu toj tan ko mu nekk ab nen nee na ko ku kenn mënul xayma na mu toll ci yàlla subhanahu wa taala xam nga Cheikh Abdul Qadir loolu la wax waaw kay mooy cuuj mooy farx mooy cuuj bi xam ni toj tan nan ko kooku laa yu qawam kenn mënu ko xayma maanaam kenn mënul wax njëgam ñaata la nga gis Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu daan wax fa baydatuhu ki nga xam ni am na yéene jàpp tariqa tijaan mbaa muy soppeeb Cheikh Tidiane radiallahu anhu mbaa sax jàpp na tariqaam rek mooy fa baydatuhu mu ni tubaahu axi bi alfin bu fekkoon dañ koy jaay ca marché ba dañ koy jox njëgu junniy waliyu tubaahu dees na ko jaay axi yow sama mbokk bi alfin ci njëgu junni waliyu nga ni ko waaw kon nen bi nga xam ne toj tañ nan ko ba mu nekkub cuuj nga xam ni cuuj la doonagul ginaar de cuuj rek mu ni fa maa lil farqi fii bayin kalaamu waa jile mos xam nga ni cuujub tariqa bi boo ko yóbboo ca marché ba di ca wut njëg doo gis ku la ca fay njëg déedéet ndax danga dul xam na mu toll nit du am njëgam loolu moo tax mu ni fa maa lil farq déet di ñeel cuujub tariqa tijaan fii bayin ci am njaay kalaamu waxaale ndax kenn amul njëgam nga dégg Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu dégg nga moom la mu wax daf di albaydu nen bi kii soog a jàpp tariqa bi te wér dagul waaye aju na ci Cheikh Tidiane yi xoolal Cheikh a tax ñuy wax nag il faut que les choses soient claires aussi cest bu ñuy wax albaydu minna bi alfin maanaa kii soog a jàpp tariqa bi te wér dagul jox nañ ko tariqa Tidiane mu ni minna ci ñun bi elfin day tolloog njëgu junni waliyu maanaa day yor maqaamab walla boog buñ ko doon misaal dañ koy misaale ku yor maqaamab junniy waliyu loolu buñ koy wax du yow taalibe bi yaa tax ñuy wax du sëriñ bi la jox wirdu wi moo tax ñuy wax Cheikh Tidiane mi nga aju ci moom moo tax ñuy wax ndax moom moo yor doole ju tol noonu boo ajoo ci kawam buy bu lay biif doole jooju lay biife moo tax doo tolloog benn waliyu yàlla loolu buñ koy wax du yow taalibe bi la ñuy wan ni da nga màgg déedéet sëriñ bi nga aju ci moom lañ lay wan màgg nga am nañ bàyyi xel ci loolu wax ji sens bi loolu la waaye duut ni albaydu minna bi alf ki doog a jàpp tariqa bi wirdegul ci ñun ci muy muy muy muy muy muy muy euh, euh, waa kër Cheikh Tidiane radiallahu anhu bi alf day tolloog junni wali wan fit kon nag nanga nga dàq na nga dàq qiimata afraaxi tariqa njëg ak xaymay loolu nga xamante ni bii ni mooy cuuji tariqa bi Cheikh El Hadj Malick ni li wax ji rëy rëy rëy rëy rëy bum la ko tax a weddi mukk ndax noo nii la yàlla yi defee moo tax mu ñu laa talbas waay waay bul sol bul làmboo binnu Quraan yi ci ak weddi boo mënee dégg déggal rek boo mënul dégg fatal say nopp waaye bul weddi waaw la Cheikh Mahamad al Haafid Tijaani al Misri daan wax rek ci arra al Mustafa xayan bi duniyaahu sahbuhu <laughs> ca qasidaam boobu daf cee waxoon mu ni fa saddiq fa arzaaqu lmusaddiqi xulwatun wa rizqu lmusiiina dunuuna xanaadilu daf daan wax mu ni fa saddiq na ngay dëggal nitu yàlla yi na ngay dëggal waxu nitu yàlla yi ndax fa arzaaqul musaddiqi wërsëg yi yàllay jox kii dëggal waxu nitu yàlla yi nee na xolwa lu neex lay doon waaye nee na wa rizqul musiiina dunuuna ki nga xam ni dafay ñaawal njort jëme ko ci nitu yàlla yi kooku wërsëgam ca yàlla xanaadilu nee na dafa mel ni xatar xatar ni mu waxee nee na noonu lay mel moo tax il faut que mbokk yi rek ñu xam ni Cheikh Abdoul Qadir magee na Cheikh Seydi Ahmad Tidiane six cent soixante-dix ans presque juróom-ñaari siècle xam nga loolu bari na trop bokkuñu xaajuñu bokk ay jamono waa jilee kii xoolal ca jamono mu waxoon albayda min na bi alfin wal farq la yuqawam six cent soixante-dix ans après wala boog sax mille ans après sax Cheikh Tidiane radiallahu anhu ay taalubeem yu ñu mel ni ñoom cheikh alhaaji malik ak ñu mel ni ñoom cheikh alxalifa radiallahu anhu dikkat di wax fa baydatuhu tubaacu axi bi alfin fa maajil farxi fi bayin kalaamu seetal wax yi foofu kon dalay xamal ni kon ndeke yow taalube bi taxoo ñuy wax sëriñ bi nga aju ci moom moo yor doole ji kon gis nga li ma li ma daan wax bis bu nekk rek gis nga mbir mi cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi la mbir mi cheikh Tidiane la moom bu ko taalibi Cheikh Tidiane xamee rek daal di noppal seen bop daal di koy joxoñ nag ni ko mbir mi yow la mu daal di jeex gis nga loolu bu amee e waa yàlla xam na ko yi ñu jooy yëpp dootuñ ko jooy waaw mu ngi noonu xam nga dafa mel ni kii yor passeport américain wala passeport suisse xam nga du yow mais réew mi ngi ko am moo tax du leneen su ko defee nag kon il faut aussi tamit ñu xam ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo toll noonu ci yàlla ba tax soo amee yéene jàpp tariqaam mbaa nga jàpp ko te wirdeguloo sax nee nañu yow bu fekkoon dañ lay peser ci balance yaa ngi yor doole dooley junniy waliyu loolu na ngeen ci def ndànk parce que dafa bëri ay amalgame ak ay confusion yuñ ciy def faites attention loolu cela ne fa pas dire que da nga leen a gën wala da ngaa yegg ci yàlla fu ñu yeggagul ci yàlla wala wala wala wala parce que dañu koy wax demeewul noonu wax ji li mooy ni sëriñ bi nga aju ci moom moo am doole ji mais pas yow pas yow parce que dañ koy wax mu ne taalibe cheikh taalibe cheikh te wóorul na sax taalibe cheikh nga ça c'est un problème kenn rek moo sañ yëkkati loxoom mu ni man taalibe cheikh laa muy cheikh Seydou Ahmad Tidiane moom de sañ na ko sañ na ni man Tidiane laa moom bu ko waxee wér na ak Tidiane moom leer na Kenin kudul mom sañu lo wax ni man tidian la cheikh an da ñaan fa nadu maulana mamatan tariqatahu fa ma malamu malaamu ok kooku daa xam li xew fa nadu ñi ngi ñaan bur yalla maulana bur yalla mi ménga sunu ay mbir lan lañ koy ñaan mamatan ak de lañ koy ñaan wa dee fan mu ni tariqatahu ci yonam wa de way way fa ma déet bàkkaar bi gën a euh, euh, sew wala bàkkaar bi gën a woyof di war ci kooku nga xamante ni bii ni mooy ñaan loolu nga xam ni mooy dee ci tariqab Cheikh Seyd Ahmad Tijani radiallahu taala anhu kon nag euh, mbokk yi fokk rek ñu bàyyiwaat xel ci ni lu Cheikh Alhaaji Malick ñaan yàlla mooy ñaan yàlla nekk taalibeb Cheikh Tidiane aywa Cheikh Alhaaji malik ci boppam ci jamonoom góor gi Alhaaji Mamaloo ak Mam Rawxaan Ngom ak góor gi nuñ koy waxee Euh, ndeysaan te dëkkoon ca mbir kilaan euh, doomi bàyyi Cheikh El Hadji Malick la woon radiallahu anhu Mamour Khoudia Sy ah, dafa am bés ñu dem ci Cheikh El Hadji ni ko dañu bëgg nga ñaanal nu yàlla ñu doon ay taalibe Cheikh ti yi Cheikh El Hadji ni leen na nañu jàng fatiha lii sëñ Babacar moo ko nettali El Hadji Aziz ca Tiwaawan parce que El Hadji Abdou dafa ñëw ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ma nekk taalibe Cheikh mu ni ko xanaa kon ma nettali la jotaayub Cheikh El malik ba a góor gi El Rawaan ak góor gi alaaji Mor Khujje si ak góor gi alaaji Mamaloo ba ñu ñëwee ca moom ni ko lu bëgg nga ñaanal ñu mbokk yi gis nga ñii may wax nii ay asxaabul idnil xaas lañu ku dajeeg ñoom buñ la ne woon del wax yaa caméra yaa caméra wallahi boo ko waxee day taxaw taxawaayu turu yàlla te turu yàlla di def loole da koy def te ànd ak loolu yépp ñi ngi ñaan yàlla doon taalibeb Cheikh Tidiane Siraj Malik radiallahu anhu nga xam ne saahibul idnil xaas la kooku xutbu zaman fardu jaami la bu amul werante bu set wecc te ànd ak loolu yëpp bi ñu dikkee ni ko dañu bëgg nga ñaanal ñu nekk ay taalibe Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf leen nañ jàng fatiha sëñ Babacar ba mu koy nettali alhaaji Abdul Aziz ni ko nag na nga xam ni fatiha Cheikh alhaaji Malick day yóbbaale salaat al fatiha kon fatiha ak salaat al fatiha la jàng ñu jàng ko ba mu àgg Cheikh alhaaji Malick ne yàlla nañ yàlla boole def ay taalibe Cheikh Tidiane yi wax na dëgg kon nag mbokk yi mbir yaa ngoogu nañ ko yàlla yal ko yàlla def rek yal nañ def rek yal def kon nag da ngay wax ni albayda ab nen Cheikh Abdul Qadir al Jilani radiyallahu an moo ko daan wax mu ni albayda ab nen min naa ci ñun bi alf nee na day day day am doole wala boog day taxaw taxawaayu loolu nga xam ni moo di junni waliyu ci ci ak may dégg nga waaye wal farx loolu nga xam ni moo di ab cuuj ci ñun ki nga xam ni dikk na ba ñu bóof ko maanaam tarbiye nañ ko jaarale ko ci mband yu tàng yi sekki ay jikko yi nga xam ni moo nekkoon ci moom ba mu regagner son statut de meilleure créature sa transparence initiale bi nga xamni mom la ko Yalla binde contrat de confiance bi nga xamni mom la signé woon ak boroomam ca yow alastu ñu fexé ba dello la ci connexion bobu ba connecté wat la moy al alfarx Yi du yombu. Yi du ay waxi kessé. déedéet mbokk yi il faut ñu ñu ñu détromper wu c'est-à-dire génn ci cadre euh, euh, ay ay folklore ak yu kenn xamul yu mu doon mbir yi c'est pas folklorique cest à yii ñuy wax ni lu scientifique la Cheikh folul fawul du du affaire u caaxaan mbiram kon il faut ñu góorgóorlu ah delloo buum ca booy booy ba jàngat tariqa bi jàngat ko toppatoo charte yi toppatoo wirdi yi xam waxtu yañ ko war a def yii bu amee jombul daañ daje ak ndimbalal yàlla mbaa ngërëmam alañ ko yàlla defal kon da ngay wax ni albayba nen bi min naa ci ñun bi elf na junniy wali moom lay taxawe waaye wal farx ki nga xam ni cuuj la bopp dañ koo buuf ba tojtan ko laa yu xawwam nee na kooku kenn amul xaymaam boo déggee kenn amul xaymaam mooy kenn xamul njëgam mënoo ni nangami wali yu déet mënuloo ko kon nag wala sabila nee na amul wenn yoon li maarifati haada ngir mën a xam ak ràññee lii li maarifati haadihi ngir mën a xàmmee ak ràññee lii yoon woo xam ni dégg ko تحصيلا يون و خامتاني بي ني مير موم نيكام لو ني عمل معنا امول فوني مانا جار با تك سي سا كانم ياو طالب بي لو خامتاني بي ني لو لير لاي دون لو مانا خامي واخ جي الا بالتعرض لودول ني داني لاي غارال موي داني اكسبوزي سي سا كانم للتعريف ngir nga xam wala bok ngir euh, taarif boko degge moy definir rek at taarif moy moy mom lañu wax la definition li taarif ngir xamal bi cheikh ci serigne bi tafsilan loolu nga xam waaw maam taarif tafsil boo ko déggee mooy xamle goo xam ne c'est un peu détaillé xam nga tey jii Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu su fekkee dañ la ko bëgg a xamal xam goo xamante ni bii ni gu détaillé la duñ la wax Cheikh ci boppam dañ lay wax ay sëriñam moom wax la fa mu jaar ak sëriñam bu ko defee xam googu moo gën a détaillé nga naan Cheikh Tidiane moom ci boppam am na lii ak am na lii déedéet dañ lay wax fa mu jaar loolu la bëgg a wax bi li taarif bi cheikh tafsila su ko defee fa kaara dafay daal di nekk at taarudu loolu nga xam ne mooy la ñuy gaaral la ñuy exposé lañ lay bu doon texte la bu ñuy bind jox la waaw wala aw ñam wu ñu togg jox la lépp taarid lay nekk min ajli dalik ngir ngir ngir loolu li taarif yi ngir xamle xamle bi ashyaaxi sayidina ci ñooñu nga xam ni ñooy sëriñ ya nga xam ni ñoo doon sëriñ yi sunu sang ba radiallahu anhu di cheikh tijaani radiallahu anhu akidan muy lu ñuy fet dali lan la bëgg a wax foofu dafa bëgg a xamle ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu sëriñam yi nga xamante ni bii ni kenn ku ci nekk laataa muy dajeeg yonente bi alayhi salaam ci tariqa Tidiane kenn ku ci nekk sangu jamono nga woon te kenn ku ci nekk eggoon nga ci yàlla ci maqaam boo xamante ni bii ni képp ku ñëw jonjoo ak yow ci wàllu yàlla wóllërante ak yow ci wàllu yàlla moom bisub keroog day taxaw taxawaayu junni waliyu looloo tax nag mu bëgg laa wax sëriñam yi mu jaar kenn par kenn looloo tax mu ñu la fa kaana taarudu min ajli dalik kon gaaral gi ngir jëmmi loolu dafay nekk li taarifi ngir xamle bi ashyaaxi sayidina ci sëriñ ya nga xam ne ñoo doon sëriñ yi sunu sang ba radiyallahu anhu akidan di lu ñuy feddali li tax mu ni wali tamaamil maarifati ak mu nekk mëtuk xam akuk ràññee bi qadrihim ci seen dayo ya mu fii dan di lu am njëriñ waaw parce que itam xam nga sëriñ yi Cheikh Tidiane yi radiallahu taala anhu xam leen ak xam fa ñu jaar ak lam la ñu joxoon Cheikh Tidiane yi la mu jëflante ak ñoom dana dana am njëriñ ci ki nga xamante ni bii ni soobu na ci yoonu yàlla mu xam ni Cheikh Tidiane mii mu am lanteel du koo xam ni dafa xëy xëy rek doon Cheikh Tidiane am na fu mu jaar am na lu mu daj laazama ma laazama hatta naala min rabbihi ma naalahu nawala loolu moo tax mu ni eh, dégg nga wali tamaamil maarifa ak mu nekk ngir matuk loolu nga xam ne moo di xam aku xamle bi qadrihim ca seen dayo ya mu fii dan di lu am njëriñ wa wa bi sabili dhalik ak it mu nekk ci yoonu loolu nga xamante ni bii ni te akkada dana ca feddalikoo ak taarifu le ga nga xam ne moom la ñuy xamle bi ashyaax yi ci ay sëriñam moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu lu tax ñuy xamle ay sëriñam ak lu ko tax a feddaliku ban importance moo ci am mu ni li yaxsula ngir na ca amee lan moo cay amee xamle ga ñuy xamle ak ràññetle ga ñuy ràññetle bi qadrihim ca seeni dayo ñoom sëriñam yoo yële looloo waral fataaradna ñu daal di gaaral ñu exposé ñu bind li dalika ñeel lii ci bunt bii fii hadal baab ci bile bunt waqtasarna fiihi nee na nag détaillé wuñ ca dañ ca gàttañ lu maanaa dañ ci indi quelque quelque quelque rek ñoo xam ni ay sëriñ lam la ñu woon yu yu mu jëflanteel ala ma la man duuxata anhu ci loo xam ne mënuñ ko teggi mënuñ ko njuuy maanaam sëriñam yooyu mënuñ leen teggi il faut que ñu wax leen nit ñi xam leen Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane jàppoon na seen tariqa jëflante na ak ñoom mu ñu nag wallahu buur yàlla al muwaffiq li sawab mooy ki nga xam ne mooy dëppale ab jaamam ak njub yàlla nañ ko yàlla defal fa fa aqul moo tax ne maa ngi wax wa billahi tawfiq lii benn genre kii la rek en tête benn genre en tête la li mu doon li ma doon firi nii dafa bëgg a expliquer sëriñ yii mu jëm nii Cheikh Tidiane ki mu ñëk a ci yoonu yàlla ak la mu jëflante ak mom fan la dajé ak mom yoyu lay wax ni mënuma ko teggi dédét fokk ma ko bu ko défé dana nek lu am jëriñ ñu xamé ci sëriñam yoyu waye itam ñu xamé ci ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu musul tok te musul noppalu ci wut yàlla lolo tax mu ni fa awwalu man laqiyahu min alsaadaati alaami zamana intiqaalihi min baladihi ila faas wa لقي الولي الكبير والقطب الشهير الشريف الأصيل الوجيه الأثيل صاحب الكرامات الشهيرة والمذايا العظام الفاخرة مولانا الطيب ابن محمد مولانا الطيب ابن مولانا الطيب ابن محمد ابن عبد الله بن إبراهيم اليملحي العالمية دفين والذان من بلاد الهبط من مصمودة حيث ضريح أبيه وجده وأخيه مولاي التهامي وهو شيخه رضي الله عنه وعنهم أجمعين له صيت عال كبير جدا تشد لزيارته الرحال من الآفاق البعيدة من الرجال وزواياه كثيرة في مدن المغرب وما والاه من المشرق وما حواه فشهرته رضي الله عنه تغني عن التعريف به وبنسبه وبطريقته رضي الله عنه لجنك شيخ تجان radiyallahu anhu wali yu yàlla bi nga xam ne moom la njëkk a dajeel bi mu bàyyi ko dëkkam ba mu juddoo muy aynu maadi dem faas wali yu yàlla wi nga xam ne moom la njëkk a dajeel moom la Seydi Ali Harazim radiyallahu anhu bëgg a leeral tuuti looloo tax mu ni fa awwalu man ka nga xam ni moo jëkk ca ña nga xam ni laqiyahu dajana ak moom min assaadaati al aalaam ci sang ya nga xamante ni bii ni ay tundi xam-xam la ñu woon zamana intiqaalihi jamono ba nga xam ni ma ngay tuxu moom Cheikh Tijaani radiallahu anhu min baladihi bàyyi ko dëkkam ila fas jëm faas jamono bi muy bàyyi ko dëkkam aynu maadi jëm faas sëriñ ba nga xam ni moom la njëkk a dajeel wa ahwaadiha ak environ ya nga xam ni moo nekk fas jamono ba fa Cheikh Tijaani radiallahu anhu di dem sëriñ ba mu njëkk a dajeel moom la bëgg a leeral mu ni laqiya daje na الوليه اك ولي يلا بوبو الكبيره ولي يالا بو مك بوبو والقطبه الشهيره اك سانغ بو سيوب الشريف الاصيل نانا كوكو غا خامني سوتو يونت يلا محمد صلى الله عليه وسلم تي امامم الوجيها نانا كاغا خامني كريون درجه لا تي يلا الاثيله كاغا خامني كو دغرون تي يلا لا saaxibal karamaati ka nga xam ni moo doon boroom teddinga nga ya muy borom karama ya muy xar baax ya ashahira yu siwoon ya wal mazaya ak boroom may ya al izaami may yu mag ya al faaxira may ya nga xam ni doy na tiitër kooku kan la mu ni kooku mooy que Cheikh Tidiane njëkk dajeel ba mu bàyyi ko aynu maadi jëm faas ma nga tuddoon مولانا الطيب ابن محمد ابن عبد الله ابن Ibrahim al yamlahi al alami noonu la tuddoon kon buñ la laajee ni la Cheikh Tidiane bi muy wuti yàlla sëriñ bi mu njëkk a dajeel bi mu demee Faas naka la tudd te loolu lii taalibe Cheikh bu ne da nga koo war a xam di da nga koo war a xam di mi ngi tuddoon Mawlaana Tayyib noonu la tuddoon ak Tayyib la tuddoon. at-tayyib ibnu muhammad waajuram bu góor moo tuddoon muhammad ibnu abdillah maamam tuddoon abdillah ibnu ibrahim maamaatam doon ibrahim al-yamlahi al-alami dafina wazan nee na ña ngi ko denc ca dëkk boobu ñuy wax wazan min biladil hibt min masmuda yi ay dëkk la yoo xamante ni bii nii ña nga nekk ci environ Fasia dégg nga ko mu ne xaytu dariixu abihi fañ ko denc nag mooy fa nga xam ni fa la ñu denc waajuram wa وجده اك مامم واخيه اك فريرم با مولاي التهامي باسكو فريرم بوبو موم لنجان ووي مولاي التهامي نيوم ني اك مولانا الطيب بيغا خامني موم لا شيخ تيجان نيك داجيل بيمي ووت يالا ño bok fuñ len denc ci wazan muni wa huwa mom mi nak shaykhuhu moy serignam ba radiyallahu anhu yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam wa anhum gërëmaale leen ajmaina ñoom ñëpp mu ni lahu amee na moom waliyu yàlla wii di mawlaana tayib amee woon na siitun aalin ku amoon turle waaw parce que siit li muy firi mooy ak ciiw mooy koo xam ni foo ko laajte doo réer waaw mooy siitun aal waaw aywa nee na lahu amee na siitun ak ciiw aalin bu kowe lool kabirun waaw ciiw goo xam ni ciiw gu màgg la jiddan lool mu ni tushaddu des na takk waxi ne arab la rek arrixaalu loolu nga xam ni mooy teg ya li ziyaratihi ngir dem ba ca xabroom di ko ziyaara min al afaqi tukkee ca gox ya albaida gox yu sore ya mina rijaali ca góor dafa bëgg wax ni gox bu de nit daana fa tak takk waruwaayam teg ca tegam tok ca reputel fasam dem ziyara ji ko mom Mawlaana tayyib mi nga xamni Cheikh sayyidi Ahmad tijani mom la ñëk dajel bam bayiko aynu maadi radiyallahu anhu lolo tax mu wa zawayahu zawiyam banak كثيرة لبريلا ولا بوك زاوية مية كثيرة لبريلا في مدن المغربي تي دكي ماروكي بوفا ديمي برينا فا اي زاوية تيت وما لا خامني ولا هو مينغنكو مو تيغو سي ريسبونسابيلتيم برينا وبيل وبال بالمشرقي تي لولو nga xamanteni bi ni moy le côté orient وا باسكو دا فا لوني واخ le maghreb ام لوني واخ le le le le côté orient امنا proche أوريان امنا moyen أوريان وا موم لا نيي Wow, am na wax aussi les pays du Maghreb waaw les pays du Maghreb pratiquement barewul lol. Maroc Algérie Tunisie Égypte waaw ah, yooyu la wax les pays du Maghreb waaw Égypte nag am na ci wenn wàllu woo xamante ni bii ni sax dafay dugg tuuti ci Moyen-Orient moo tax waaw daf ciy dugg su ko defee nag moom nga xam ni la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu njëkk a dajeel ci wàllu yalla, mouy, Mawlana Tayyib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim mii daf lay wax tuuti ci moom parce que nag lii mooy tijaniya tijaniya du rek nga toog fii dégg nga ku dul tijan du dara de loolu du tijaniya lii jawairul maani la jawairul maani buñ koy wax mooy tariqa tijan c'est ça te ànd ak loolu yëpp gis nga muy cité ay wali yu yàlla di wax seeni mbaax où donc le problème la moo tax rek moo war a ku dul baaxul loolu fan lañ ko bind ak kan moo leen ko wax loolu dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel loolu nañ ko moytu waaw donc les yéen yéen surtout yéen la la jeunesse là na ngeen bàyyi xel ci yooyu waaw bu leen kenn dugal ci sournois yooyu yooyu yooyu demul fenn doxul amul fenn ci tariqa bi cheikh ñëpp la wax nañ leen fonk cheikh ñëpp la wax nañ leen bëgg jeex na amul leneen aywa loolu dafa bokk charte tariqa bi nga bëgg jullit ñëpp bëgg jullit ñëpp bañ noonu benn jullit kooku charte fondamentale la ci tariqa tijaan waaw كنا دغاي وخني وزواياه كثيره في مدن المغرب وما والاه وبالمشرق نانا وما اغلغا خمني يتم حواه لاقناكو لولا بلو باري لا لول تي والو فوفوغا خمني مودي لا كوتي اوريان موم موميغا خامتاني بي ني مودي مولانا الطيب ابن محمد ابن ابراهيم بيغا ابن عبد الله ابن ابراهيم بيغا خمني موم لا شيخ تجاني رضي الله عنه ديك دجال تي يونو يالا لولا تخيت موني فشهرته ciiwam ga radiyallahu anhu yàlla na buur yàlla dolli ngërëmam siiwam googu tux nii dina doy sëkk ani taarifi ci ñu koy xamle waaw am na koo xam ni soxlawul ñu naan la am na cëru yàlla ak amul cëru yàlla sa popularité dana doy sëkk ci nga xam ni kii am na cëru yàlla xam nga boo dikkee fii Sénégal nga wax Cheikh Al Hadj Malick wala nga wax Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu yow boo ko xasee soxlaatul ngay ki parce que da ngay xamni ñi ay nit yalla yu mag lañ ko xamni ni télé mo so wax ci radio demo fen ta xalé yi juddu barki dem ñepp xam nañ la donc lool lan la bu dul lan la hmm. li ci gis mukk kuy weddi Cheikh Tidiane ak waayi Cheikh Tidiane ak wa kër Cheikh Tidiane ba ko koy weddi nga gis nit di waté turam musta am wa do ko deg de waté turum ngay mën nga deg barke El Malik, Malick mën ngaa dégg barke Sëñ Touba barke Baye yooyu yëpp mën nga ko deg waye xolal ñi nga xam dañuy wedd Cheikh Tidiane ndax di nga deg ku len waté ñom ah da dañ ci wara taxaw di da nga fokk ni loolu ak réer la ñi ñun dañu réer dañu nek ay jaayil xamuñ dar wala dañuy bokalé yalla wala dañ jangul diiné ji wala dañ xamul li xew moo tax ñuy ñuy leen di waate comme ça nii du loolu de mbokk yi ah ah ñun seen tur yooyu buñ koy tudd dañ koy barkeeloo kenn gënu xam ni yàlla subhanahu taala moo wax loo yonente bi alayhi salatu salaam man yaxlif man kaana xaalifan fal yaxlif billah képp kuy giiñ na nga giiñ ci yàlla waaye yàlla moomu nga xam ne ci moom la ñu war a giiñ moo giiñ ci dund yonente bi giiñ ci loo xamante ni bii ni nit ñii ñuy giñe ñun loolee ak lu mën a xew nit ko gën a for téeméeri junni yoon yàlla nee na wal fajri di yàlla nee na wal shamsi di yàlla nee na wal layli di yàlla nee na wal duxaa di yàlla nee na sax wal tiini te lu ci ne ngiñ la te borom bi tabaraka wa taala moo ko wax waaw kay moo tax am na yoo xamante ni bii ni bu leen ci topp fuqaha yi ba mu sës leen ci def ndànk noonu ko Cheikh Tidiane radiallahu anhu daan waxe ma fi butuni kutubil fiqhiyati illa al xusumaat nee na biir téere fiqhu yi lu ci bëri xuloo la ndax kii day wax aw fii kii wax aw fee lolo waral ñom di len amoon solo moy dañuy gor gor lu ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ba ag ci mom ba lu mu doonante ci diine ji kiko yàlla wàcc ci mom lañ koy laaj mom la Cheikh Omar di wax ci terem bobu ñum ñuy wax rimah di wax al wali al maftuh alayhi la yataqayyad bi madhhab muayyan min al almadahibi bal yaduuru maa haqq haythu dara da daan wax wali yàlla wo xamanteni bi ñi dañ ko ubbi wali yàlla wo xamni ag na ci maqama bobu ñuy wax maftuxun alayhi parce que fathu yi ñeent la dafa am fatxul mubin am fatxul qarib am fatxul akbar am maftuuxun alay ben bokku ci ak sa morom après après yoy dinañ ci ñëw ñu léral ko ben par ben et puis c'est très clair du yo xamanteni bi ni ay wax la yi ñi wax ni déet lu leer la de ngeen maftuuxun alay bokku ko moy li cheikh omar di wax al wali al maftuuxu alay walu yàlla wo xamni dañ ko tijji moy kan mu ni ka nga xamni la yataqayyadu du tënkooti bi madhhabin ci ngir min al madahibi al muayyana ngir yi ñu ragne malik ak xanafi yeeg shafii de dootu ci tënku bal ya ma alxaq li fi ne day wëndeelu day wër ànd ak dëgg te dëgg moo di yàlla xaytu daara fu yàlla aw mu aw fa siraj maag di mos gis mu julli xabdu waxuma julli xabdu baaxul de j'ai pas dit ça cheikhu Tidiane da ngeen ko mos gis mu julli xabdu cheikh Tidiane danaan sadlu da yoor ay loxoom te muy maftuuxun ala raw ñëpp ci yàlla kooku mun na gàg-gàg yu tol ci pays yàlla motax nga affaire yi aussi amul euh, un poids deux mesures je ne dirais pas deux poids deux un poids deux mesures baxul deux poids deux mesures mom loolu jaadu quoi sincèrement mais un poids deux mesures c'est mom xel nangou ko Cheikh da ngay ci ñu de <laughs> du Cheikh dogal ci diina ji de waye gënu xam diina ji nak ah, lolit ci parce que dafa bëri yoo xam nit ñi dañu koy wax te li ñi wax xamuñu ko nañ ci bàyyi xel ok kon nak nee fa shuhratuhu ciiw ga nga xamni mom la siiw mom maulana Tayyib ibn Muhammad bi nga xamni mom la Cheikh Tidiane ñeuk dajel bi mu bayiko aynu maadi jëm fas nee ci wam gogu tourni nii dana doy sëkka añi taarif ci ñu xamle moy kan bihi ci mom wa bi nasabi ak askanam wa bi tariqati ak tariqam radiyallahu anhu yàlla bur yàlla gërëm ko légui nak serignam bobu day wax touti rek ci mom dengé ak fi cheikh tidiane radiyallahu anhu jaar ak mom muni tuwaffiya رحمه الله تعالى ورضي عنه أواخر ربيع الثاني عام ثمانين ومائة وألف ودفن ببلاده والذان رحمه الله أخذ عنه سيدنا رضي الله عنه وأذن له في التلقي في تلقين ورده فامتنع سيدنا رضي الله عنه من ذلك لاشتغاله رضي الله عنه بنفسه ولكونه لم يعرف منزلته في ذلك الوقت رضي الله عنه لجنك مني توفي فاتنا كان مو فاتو رحمه الله يالنا بور يالا غرمكو يالنا بور يالا يرمكو تعالى بور يالا مي جومبي تياخان مو مولانا الطيب ابن محمد ابن عبد الله ابن ابراهيم مو موغا خامني موم لا مو تيان جيك داجيل تي يونو يالا نينا فاتونا دي يالنا بور يالا dégg nga yërëm ko yal na bur yàlla gërëm ko wa radiya anhu mooy yal na bur yàlla gërëm ko kañ la faatu mu ni awaaxira rabiu thani ca fan ya mujj ca weer woowu ñuy wax rabiu thani ndeysaan aama samanina wa miatin wa alf gannaaw ba yoneen gàddayee ba mu teg junniy at ak téeméer ak juróom-ñett fukk mille cent quatre-vingt nee na ca la génn àddina moom mii nga xam ni moom la Cheikh Tidiane njëkk a dajal ci yoonu yàlla wa duufi naa ñe ña ngi ko bi bilaadihi ca dëkkam ba di wazzaan rahimahullah yal na bur yàlla dolli ko yërëm nee na axasa jàppoon anhu ca moom kan moo jàppoon ca moom sayiduna sunu sang ba radiallahu anhu di Cheikh Tidiane wa azzina te digaloon na lahu di ko ñeel fi talqini wirdihi ci ni ko wirdi wi nga jàppe ci man yow Cheikh Tidiane Mawlana Tayyib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim moo waxoon Cheikh Tidiane ni ko wirdi wii ma la jox nga jàpp ko ci man jox ko nit ñi sa ko nit ñi waaye Cheikh masta bëgg woote Cheikh masta bëgg ay taalibe parce que Cheikh dafa teel a xam ni l'humanité n'a jamais rien obtenu par l'effort de la foule Cheikh daf ko teel a xam loolu xanaa Alex Carrel moo ko daan wax waaw Alex Carrel xale yi da ngeen ko set ngeen toppatoo ko Carnap mom mo bindon l'homme sept inconnu. l'homme sept inconnu, waaw sept inconnu C E T waaw sept inconnu, waaw dañuy bañ dajeek ñaari nuñ koy waxé voyelle yi waaw xam nga ce inconnu mom ah moom sa ken mënu ko wax waaw cet inconnu waaw kay daf ko daan wax daf daan wax mu ni euh, l'humanité n'a jamais rien obtenu par l'effort de la foule. Elle est poussée par la passion de quelques individus, par la flamme de leur intelligence, leur beauté et leur charité. Li Alex Carrel moko wax Cheikh lolou la teel a xam xoolal gis nga Mawlana Tayyib bi jox ko wird jox ko ay kunash ni ko demal nga jox nit ñi sama tariqa waaye Cheikh nanguwul lolou lay wax nan wa azina digal na lehu di kan mo digal maulana Tayyib kan la digal Cheikh Tidiane fi talqini wirdihi ci ni ko demal nga joxe sama wird demal nga sanit nit ñi sama wird famtanaa nee na mu daal di gantal famtanaa mu daal di gàntal sayyiduna suñu sang ba gantal gi bu leen yaakaar ne dafa déggul ndigalal bi cheikh bokkul ci ñi nga xam ni dañoo tëb rek wóolu seen bopp ci yàlla léeg-léeg koy gis am benn ijaaza rek sëñ bi bëgg ko def waru bukki am na almet tey àll bi boy déet bu àll bi boy na leer rek bu boyee doo fanaan keroog di waa waaw am na almet tey àll bi boy boobu baaxul waaw cheikh radiallahu anhu dafa jàngale ni nit wër te boppam ba mu ëpp ci yàlla looloo waral famtanaa mu dal di xaw a gàtt gantal gàntal rek سيدنا سونو سانغبا رضي الله عنه يالنا بور يالا گرم كو من ذلك تي لولو موي لان ديم جوخي ويرد وو nga مولانا طيب مكو جخون لوتاخ مو ديف كو موني لاشتغاله غير اديو اك سوخلاو غومو سوخلاو رضي الله عنه موم يالنا بور يالا گرم كو دي شيخ تجاني بنفسه تي بوبام ولكونه اك نيك غومو نيك موم شيخ تجان لم يعرف خمول تي بوبو جامونو منزلته درجام اك مقامام في ذلك الوقت تي بوبو لي وقت رضي الله تعالى عنه يالنا بور يالا گرم كو xam nga cheikh bi muy doge maulana ma ma, bi muy soga a daje ak maulana sey Tayyib bo démé ci al jami'a mi ngi koy netali moo tax it jawahir mané sur ci di wax ni rek te xoolu loolu lu melni jawa kii jaamia du ma ah da fay compliqué trop jawahirul maani moom képp ku ci bëgg di wax aussi tamit loolu dama leen koy wax fokk ngeen bàyyi xel lu melni al jami'a li durril ulumil faida min bihaaril qutbil maktum benn foog nga bàyyi xel rawdul muhibbil fani fii ma talaqaynaahu min sayidi ahmad al tijaani ñaar فوق nga bàyyi xel ashurbu saafi min al karamil kaafi bu seydi xasanul baaqili ñett yii mënta ñak faw yi nga toppatoo ko ba nopi sogo a xawa ki tuti ci jawaayir du mën ñak parce que jawaayir borom daf koy dank rek di dem légui nak ki di Mouhamed Sidi al Mushri mo ñëw après détail yi ci yu lu bare bare bare bari dem sax ba wax ci lo xamanteni bi ñu dafa xawa a parce que dem na ba indi ben téré bu mu tuddee ifadatu tijani bima laysa fi al maani ifadatu tijani bima laysa fi jawahir al maani ifadatu tijjani bi ma laysa fi jawahiril maani man amee naa téere bi du téere bu ñu muul ah pour wax la moo tax yëf yi il faut rek ñu def attention Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daf ko daan wax téere yi benn wecci wu ci benn yëpp a yem dañuy motalante téere yi benn wecciwul benn yëpp a yem dañuy motalante jàng naa laxdar yi rek doy na du ma jàng asma yi qu'est-ce que cela veut dire ça jàng naa laxdar yi rek doy na du ma jàng risala qu'est-ce que cela veut dire ça jàngal lépp jàngal lépp parce que léeg nga fekk masala ci laxdari yu boo xam ni doo ko fekk ci ashma wi xoolal borom laxdari xoolal fi mu yem ak yow boo fa yemee mais dana garaw xoolal mbiru basmala bi mu koy wax ci julli farata daf ni dañ ko sip yam ca te ci ngiru Malik lay bind te ngiru Malik waxul ni dañ ko sip yam ca demal ci ibnu ashir wala nga dem dégal euh, euh, euh, ashma wi dafa lay xamal ni la bismillahir rahmani rahim ci bir ngiru malik ñenti atte daf ci am dafa am ñu ne dafa war wujub la am ñu ni man kosop dañ ko sop am ñu ni mubah la bu la nexé def bu la nexé baña def am ñu ni makruh dañ ko sip fokk nga ni luñ ni da war ak luñ ni dafa dagan ak luñ ni sop nañ ko benn ci bil mënu ko wat sanni wa da Cheikh Tidiane comme mom da costé Cheikh Tidiane koku dafa dafa dafa yémi bam agge ci mbiru basmala hadisul qudsi la indi tek ñu wax muni maangi wat ci sama dundu duma bayyi mukk di jang fatihatul kitab diko ko jokkaleeg basmala duma ko bayyi ci julik farata duma ko bayyi ci lenen lu julik farata ñun ko muningir muni ngir hadis bi nga xamni dafa rot di feddali ngeene li nekk ci fatiha nga jang ko jokkale ko basmala ba pare hadis bobu borom bi feddali ko ak mooy waxam boobu ngeen di fekk ca téere boobu barakatul jalil tayib ni indi muy euh, euh, al al al ifada waaw ifadatul ahmadiya waaw sukayri def na ci benn sharha ci téere bi mais yàlla dogalul sharha bi àgg mais am na luñ ci jot am tuuti yal nañ ko yàlla fayal Seyd Ahmad Sukayri jàmbaar la yàlla xam na ko même jawahir bi doon na ko jéem a firi doon na ko jéem a sharha waaye yàlla dogalul mu àgg nag xam nga mooy téeréem ba mu tuddee woon tijanul gawaani fi charxi jawahiril maani waaw même ifadatul ahmadi doon na ko jéem a firi waaye yàlla dogalul mu àgg mooy téeréem boobu mu tuddee woon al ijada ala al ifada yooyu yëpp foofu ñu toptoo ko parce que nag tijaani yi liñ ci bind kenn xamul ni mu toll ñu bëgg ko bàyyi nii rek waay waay waay loolu kenn xamul lu mu doon dégg nga su ko defee nag radiyallahu anhu Cheikh Tijaani mbokk yi fokk ñu xam ni mbiram noonu la tëddee waaw noonu la tëddee noonu la tëddee noonu la tëddee waaw kon nag ñu yam ci noonu rek te dem kon nag nee na wa azina lahu fi talqini wirdihi sëriñ boobu di mawlaana tayib digaloon na Cheikh Tidiane ni ko demal nga joxe sama di nga sako nit ñi fam tanaa nee na mu lu سيدنا سونو سانغبا رضي الله عنه يالنا بور يالا دولي غيرم من ذلك تا لولو لاشتغاله غير سخلو رضي الله عنه بنفسه واو باسكو خامنا ني و نيت سي والو يالا لولو ليك ليك من نا تاردل نيت تي دوكو ييك ولكونه اك نيك غومو نيك موم شيخ تجاني لم يعرف منزلته خمل وون درجام في ذلك الوقت تي بوبل radiyallahu anhu waaw parce que itam nit dina àgg ci maqaam boo xam ni dina rëy ba rëy bu fa te du ko xam loolu du ci dara waaw ah, loolu du ci dara benn waay toog na nii di lazim loolu yàggul fi mu toog di lazim benn góor a nga toog fee te góor gi moom lazimul defut dara defut dara waa ji di lazim lazim yi ngeen di wax lazim wird téeméeri astaghfirullah téeméeri salaat al fatih téeméeri la ilaha illa allah même loolu sax sëriñ si niñ ko jàngalee dafa dafay dafa xaw a des parce que ko wax yi ci daara ji fi mu nekk nii lazim boo koy def normalement wala wirdu boo koy def normalement mais waroo jokkale yëpp waroo pare ci astaghfirullah bi rek dem ci salatul fatih bi waroo pare ci salatul fatih bi dem ci la ilaha illallah bi déedéet ci diggante yi dafa war a am subhana rabbika noonu la war a demee te bëri na koo koy wax danaan la xaw ma ko bëri na du jeex du xaaj boo waxee astaghfirullah téeméer bala ngay jàng salatul fatih da nga naan subhana rabbika rabbil izza amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin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 wadifa kii dabe du jàng fatiha du jàng aoudu billahi min alcheytani arrajim dafay dikk rek fa mu fekk ña nga xam ne ñooy wadifa mu dabe foofu parce que arkaan yi nga xam ni moo tënk wadifa jàng fatiha bokku ci dañ ko ubbee rek bu fekkee xadratul jumaa nag la arkaan yi ponk yi ñu war a jàng aoudu billahi min alcheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim ak fatihatul kitab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 xam nga tëj nga ci bismillahi rahmaani rahim jàng fatiha léegi da ngay tëj inna allaha ba noppi soo ko tàmbali daaj laa ilaha illa ji te même mbiru xadara sax xam naa buñ ca àggee danañ ko gën a waxtaane parce que itam même moom sax sëriñ si des nañ koo jàngale parce que déjà benn toogi nii niñ koy defee dañ ko war a xoolaat parce que xadara am na noo war a tooge benn beneen bi ci des laa ilaha illa ji am na nees ko war a jànge mouvement yi nga xam ni moom ngay def am na nees ko war a defee allah allah ji bu fekkee ci la bokk ci ñi nga xam ni dañuy xadara di ci boole allah allah loolee it mouvement bi nga xam ni moom nga koy defee du bokk ak bi ngay def booy jàng laa ilaha illallah ji déedéet yooyu il faut après ñu ñu taxaw ci incha allah bu ñu àggee ci mbiru euh, lawraadi tariqa bi ci biir jawahir bi ñu waxtaane ko kooku moom du mën ñàkk incha allahu taala su ko defee nag nee na xadara noonu la boo pare it da koy tëjaat da nga koy tëjaat maanaam boo jàngee laa ilaha illa allah ji ba mu daanu nga jàng ji ba mu daanu su boobaa da ngay tëjaat mooy da ngay jàngaat fatiha benn yoon jàng salatul fatih du am istighfar nag ubbi ba mooy am istighfarul qayumi ya ñetti yoon mais tëj bi ci xadara benn fatiha lay am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 والسعي الرابح صاحب الكشف الصحيح والذوق الصريح سيدي محمد بن محمد بن الحسن الوانجلية من بني وانجل من جبال الذبيب فإنه لما ورد عليه سيدنا رضي الله عنه قال له قبل أن يكلمه إنك تدرك مقام الشاذلي وكاشفه بأمور كانت بباطنه وأخبره بما سيكون منه وذلك عن بعد وقد ظهر الآن ما بشره به ولله الحمد والمنة من الخوارق والكرامات والبوارق ولم يأخذ عنه سيدنا رضي الله عنه توفي رحمه الله حدود خمسة وثمانين ومائة وألف رضي الله عنه منينك ولقي دجنا موم شيخ تجاني دجنا alwaliya ak waliyu yàlla wa alsaaliha ku baax ka wa saiya ak ka nga xamante ni bii ni nee na ku ku daan jëfal yàlla la arrabiha kooku nga xamante ni bii ni ku tonu la mooy ku am bénéfice ca yàlla la saahibal kashfi ka nga xam ni moo doon boroom kashfu ba kashfu nag boo ko déggee mooy koo xamante ni bii ni dafa denci kumpa rek aha yow yi la ump loolee ump ko moo xam yi teew ak yi ñëwagul la yépp ci bokk yam du lu yomb nag de dedet bari na ku naan kashfu kashfu lam yor du kashfu de shaytan rek la bari na nak te nit ñi duñ ci bàyyi xel bari na koo xam ne seytaane moo koy niital rek alors que li muy gis du dara waaw kashfu dëgg dafa war a jëriñ nit waaye wërtalor nit loolu tax bu ni saaxibal kashfi mooy borom kashfu ba as-saxiixi kashfu bu wér wa zawq mooy borom mos ga as-sariixi mos gu leer naññ kooku moom saaxibu zawq la maanaam koo xam ne dafa mos yàlla buy wax waxam day saf sapp yàlla sayidi Muhammad la tuddoon ibnul hasan al waan jali min bani waan jal ma nga bokk ca ñooñu nga xam ne ñooy banu waan jal min jibaali zabib ci foofu nga xamante ne bii ni mooy tund zabib ya benn eh, eh, gox la boobu bu nekk foofu ca Faas Cheikh Tidiane radiallahu an gannaaw ba sëriñam boobu di Mawlana Tayyib génnee àddina ca la daje ak sëriñam bii nga xamante ni bii ni moo di Muhammad ibnul hasan al waan jali allahu akbar ci yàlla lolo waral nak mu fa innahu werante amul ci ni lamma warada ba nga xamé ni rotna alayhi cha mom sayyiduna sunu sang ba radiyallahu anhu yalna bur yàlla gërëm ko di Cheikh Tidiane moy mooy démé ba ag ci serigne bobu di Muhammad al Hasan al-Wanjali qala lahu koku dako wax niko qabla an yukallimahu la nek Cheikh Tidiane diko wax lamu bëgg ci yàlla ak soxlam serigne ba daf ko ni innaka tudriku maqama shadili innaka tudriku maqama shadili innaka werante amul ci ni yow tudriku da nga jot da nga am maqaama Shadili maqaam boobu nga xam ne moom la Abul Hasan Shadili amoon ci jamonoom te ku ne xam ne Abul Hasan Shadili àggoon na ci maqaam boobu ñuy wax qutbaniyatul uzma nekkoon na sangu jamono Cheikhu Tidiane ñaareelu sëriñam radiyallahu anhu bi mu dajeel ci yoonu yàlla ca Faas muy Muhammad ibn al-Hasan al-Wanjali moom ci boppam moo ko ni la budda an tudrika maqaam al-qutbi shahiri mawlana Abul Hasan Shadili bi pare wa kaashafahu mu kashfante ak moom maanaam mu wax ko yoo xamante ni bii ni bi umurin ci ay mbir kashfu boo ko déggee mooy mu mu mu mu mu aywa euh, du ma yee sax de waaye mu xibaar Cheikh Tidiane ci mbir yoo xamante ni bii ni ma ngay ñëwi te nam ko ko waxee mbir yooyu ba mu ñëwee non nii la demee kon li tubaab di wax un homme averti vaut deux Cheikh Tidiane radiallahu anhu bari na lu nit ñi yaakaar ni loole lu ko umpoon la ump ko nde luñ ko teel a xamal luñ ko teel a wax la looloo tax mu ni wa kaashafahu kooku ubbente na ak moom kooku kasfonte na ak moom muri yu bare yoo xam ni ca kanam la war a xew ay at ca kanam mu teel caa prêter attention maanaam mu teel ko mu teel caa wax Cheikh Tidiane radiallahu anhu ngir mu prêter ci attention loolu moo tax mu ni wa kachafahu mu kashfante ak moom bi umurin ci ay mbir yoo xam ni kaanat nekkoon na bi batini yi ca biiram moom Cheikh Tidiane yi wa axbarahu mu xamal ko nag kan moo ko xamal moom sayidi Mouhammad ibnul Hasan al Wanjali moo xamal Cheikh Tidiane yi bi maa ci lépp loo xam ne sayakunu minhu dana nekk ci mbiram وذلك تلولو كات عن بعد لسوري لا واي جيغيل نكو كو خمال كو كو با شيخ تجاني دنجي كومبا لوم دوناتي بلا موي اكسي فيك نا شيخ تجاني خمنا لولي لان لا اي سي تري امبورطون لولو وارال موني وقر ظهر فينا الان تاي لولو موي ليپ لوم كو واخون لولي فينا تاي وخون نكو ني انك تدرك مقام الشاذلي لولو امنا ولا امول شيخ تجان كاي كون خمنا ني ليمام شاذلي اك مايام لي ري ري ري ري مونتا دون لولو دونغام نك ما واخلاكو dama abu abul hasan ash ak li mayam di rëy rëy rëy rëy rëy munta doon lu dul dongob Cheikh Tidiane akay ah, bay looloo tax mu ni waqat zahara al an lépp lu mu ko bégale woon waxoon ko ko nee na looli feeñ na tey maa la nga xam ni basharahu wala boog waqat zahara feeñ na al ana tey maa la nga xam ni basharahu bégaloon na ko bihi ca loola moom mawlaana محمد بن الحسن الوانجلي لب لو مو شيخ تجاني رضي الله عنه لولا تاي غيس نانكو لولا تخ ولله دغ دغ دال نيالنا بور يالا الحمد اك تانت والمنه اك خيول من الخارق تا خار باخ ياغا تنبيني بي ني خام دولو ني مين نكا جيك لولو باخو نكون ديكو خام te lu ci ne daje na ci Cheikh Tidiane yi wal karamaati ak loolu nga xam ni mooy karama ya mooy yooyu nga xamante ni bii ni yàlla ko daan terale nitam ya wal bawaariqi ak ya nga xam ni yooyu yooyu way lerxati ya nga xam ni da nga koy gis xam ni lii du caaxaan mooy yuy lerxati walam yaaxudu anhu waaye nag Cheikh Tidiane jàppul ca moom sayiduna sunu sang ba radiallahu anhu maanaam jàppul ca moom boo ko déggee mooy joxu ko wird xam nga Mawlana Tayib Cheikh Tidiane jël na moom wirdam waaye bu dee Mouhamed Ibn al Hasan al Wanjali سيد احمد جاني رضي الله عنه جتول جاب طريقام واي جفلانتنا اك موم سي والو يالا بوكو جوخ كو بن اتستاسيون اتستاسيون بي مودون داف كو ني انك تدركو مقام الشاذلي برينا كون كو دون واخ داغي دالدي يانجاخ غاتن لو دوتو غورغورو سي والو يالا واي شيخ كروك لا غن ربتال جيم تا خامني اموغول لام بغ دي نكا جيك ميري نون لا ورا دوخي خليل يي تيلا غاتن لو سي يالا باخول ديدت لولو باخول لولو تخ موني توفيا فاتنا رحمه الله yal naburi bur yalla gërëm ko fatuna na la fatu neena na eh, sanatin wa khamsina wa miatin wa alf neena baga yonen nga bamou tek junni at ak temeri at ak jurom ñett fuk ak jurom kon danaka juromi at rek lañ ci tegat ndax 1180 koku nga xamanteni bi ni modul Mawlana ci la genn adina waye bo xoolee 1185 koku nga xamni modi muhammadin di Hasan al Wanjali di ñaareelu serignam bu mu dajal ci Fas radiyallahu anhu ca la génn àddina yàlla na bur yàlla gërëm leen yàlla na bur yàlla fay leen ci mboole loolu jëflante nañ kook sunu sëriñ ba Cheikh Seyd Ahmad Tidiane yi xanaa wax ko rek de waaye yàlla dana leen ko fay ndax kii jëflanteel yàlla bàyyi na ko xel mu Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu looloo tax it ni walaqiya bi faasa alwaliya saliha najla alaarifi arrabixi sayidi abdallah ibnu sayidi alarabi ibnu ahmad ibnu muhammad المدعو بابن عبد الله من أولاد معن الأندلسي رحمهم الله لقيه وتكلم معه في أمور ثم لما أراد أن يودعه دعا له بخير الدارين وآخر ما افترق وآخر ما اقترف عليه قال له الله يأخذ بيدك ثلاثا سكي نينا na xam nga wax أحمد ne رضي الله تعالى عنه dajale ak Mawlana Tayib ca fas mu génn àddina ca 1180 mu dajawaat ak beneen nitu yàlla bu ñuy wax Sayyidi Muhammad ibnul Hasan al-Wanjali 1185 mu génn àddina mu dajawaat ca Faas ak beneen nitu yàlla moom lay wax walaqiya daje na bi Faas ca Faas alwaliya kooku nga xam ne moo di waliyu yàlla ba alsaaliha ka nga xam ne ku yéwén ku baax la najlal aarifi ka nga xam ne mooy doomu ko xam yàlla arrabixi ka nga xam ne ku tonu la tonu xale yi mooy ku ku jaamu yàlla ba yàlla nangul la ndax lépp loo defee ci yàlla daf koy ful da ngay bari bénéfice loolu mooy arrabix sayidi abdallah nee na kooku mooy doomu sayidi abdallah ja sayidi al arab kooku nga xam ne mu ne daan woowee al arabi Kan ibnu Ahmad, ibnu muhammad al kañ dan woowee ca jamonoom bibni Abdullah, ibnu Abdullah, lañ ko dan woowee mi ngi bokon min awlaadi ma'nin al andalusi maani al andalusi kooku nga xam mom la Cheikh Tidiane dajel ci ñetteelu sëriñ ñamu dajel ca faas lañ ibnu Abdullah, moo tax mu ni rahimahumullah yàlla bur lebur ya leen yàlla bur yàlla gërëm leen laqiyahu nee na cheikh dajane ak moom wa takallama maahu mu waxante ak moom fii umurin ci ay mbir thumma lamma araada gannaaw ba nga xamee ne namm na moom Cheikh Tidiane nag an yuwaddiahu mu tàggoonte ak sëriñ boobu sëriñ ba daa ñaan na lahu di ñeel Cheikh Tidiane bi xayri daarayn ni ko yàlla na la yàlla defal yiw addina ak yiw alaxira xam nga ni sëriñ bu ñaanal li ab taalibeem faw mu dal ko allahu akbar ñetteelu sëriñ bi Cheikh Tidiane dajel ca Faas bi ñuy teqalikoo ñoom ñaar lañu teqalikoowee ñoom ñaar liila ak ñaan ak bégle ñaan gi moy daf ko ni yàlla na buur yàlla sotti ci sa kaw yiwu addina ak yiwu alaxira loolu lay wax naan thumma lamma araada topp nag gannaaw ba nga xamee ne namm na an yuwaddiahu mu tàggonte ak moom daa ca la ñaan la huudi ko ñeel fi xayri daarayn ci addina ak yiwu alaxira moo tax mu ni wa axiru maqtarafa mu jug la nga xamante ni bii ni nag nee na ca la ñu teq wa axiru maf maf taraqa maf taraqa mu jug la nga xam ne ñoom la ñu maanaam fa fa ñu teqali ko wee alayhi ca loola maanaam lañ mujj wax qaala lahu daf ko wax kan moo ko wax moom sëriñ ba di ibnu ibnu abdillah dafa wax ti Tidiane ni ko allahu yaxud bur yàlla day dana jàpp bi yadika ci sa allahu akbar gis yalla yàlla seetal wax allahu yaaxudu bi yadik allahu bur yalla yaaxudu mooy kii jàpp bi yadika ci sa loxo mu wax ko ko salaasan ñetti yoon waay waay xam nga ni bu la résignation dans le dénuement lii moo amoon mooy gis nit xam li ko defal nga nanguko ko noppalu bi mooy ñetteelu nit bi Cheikh Tidiane dajal ca Fass bi ñuy teqalikoo ñoom ñaar daf ko ñaanal yiwu àddina ak yiwu àllaaxira ba pare wëlbatiku daal dina ko allahu yaxudu bi yadik yàlla mooy kiy jàpp ci sa loxo yow Cheikh Tidiane doo sànku te doo riir sëriñ boobu nag nee na tuwafiya sanata thamaniya wa thamanina ghasalatuhu bi yadi nee na wa ghasaltuhu bi yadi wa kafantuhu وجهزته رضي الله عنه وكانت له جنازة حفيلة حضرها أعيان فاس من علمائها وفقرائها ورؤسائها وصلي عليه بقبره عند آبائه وأجداده خارج باب الفتوح قرب قبة القطب الشهير سيدي أحمد اليمني رضي الله عنه منك ñu nag شيخ تجاني بابو رضي الله عنه توفي tuwafiya nee sanata thamaniya wa thamanina wa miatin wa alf muy mille cent quatre-vingt-huit xam nga sëriñam bu njëkk ba mi ngi génne àddina mille cent quatre-vingt sëriñu ñetteel bi mille cent quatre-vingt-cinq sëriñu ñett eh, sëriñu ñaareel bi mille cent quatre-vingt-cinq sëriñu ñetteelam bii nga xam ni moom la mujj a te mu waxoon ko ni ko allahu yaxudu bi yadik buur yàlla mooy ki jàpp ci sa kooku mi ngi génn àddina ñetti at après mooy mille cent quatre-vingt-huit thamaniya wa thamanin wa miatin wa alf ci la génn àddina moom sëriñam boobu di ibni abdillah rahimahullahu taala nee na wa xasaltuhu sang naa ko man Cheikh Tidiane bi di ci sama loxo wa kafantuhu nee na sang naa ko bi di ci sama loxo wa jahaztuhu maa ko waajal man Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yal na bur yàlla gërëm ko ni wa kaanat nekkoon na lahu di ko yel janazatun nee na rob boo xam ne xafii la waaw rob la boo xam ne rob bu dal xel la parce que la fa teewoon ci ay nit ak ay yu yalla ken xamul nu mu toll lolo tax mu ni xadaraha na robam ba ayaanu sangi fas yeb min ulamaiha ci borom xam-xam ya wa fuqaraiha ak ñinga xam faqir ya fuq ah, faqir boko dege moy ñinga ñi xam soxla wuñ ko mooy yàlla telliwul ku ñak de déedéet wa ruasaiha ak ñinga nga xam ne ñooy ya wa sulli alayhi nee na jullees na ca moom bi qabrihi ca bàmmeelam ba inda abaihi ca way juram ya wa ajdaadihi ak maamam ya moom ibnu abdillah fan nañ ko jullee mu ni xaarija baabil futuuxi ca loolu nga xam ne moo di bitib buntu boobu nga xam ne moom lañ daan woowee baabul futuux qurbata qurba qubbatil qutb foofu nga xam ne moo nekk ci maanaam ci wetu qubba am na nu ngeen koy waxee mooy coupole waaw coupole boobu nga xam ni mooy coupolu sang ba achahir sang bu siiw ba muy sayidi ahmad al yamani radiallahu anhu fañ ko denc moom muy sayidi dégg nga ko ahmad al yamani radiallahu anhu fañ ko denc foofu ca buntu eh, zawiyam ba foofu la ñu jullee ibnu abdillah mii nga xam ne mi ngi génn àddina 1188 nga xam ne bi muy tàggatoog cheikh sayid ahmad tidiane radiallahu anhu daf ko waxoon ni ko allahu yaxudu bi yadik way way bur yàlla dina jàpp ci sa loxo loolu kenn mënu ci dara leen yàlla gërëm leen yàlla fay seen liggéey Cheikh radiyallahu anhu ثم أخذ طريق الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بفاس على يد من كان يلقن طريقته ومن له الإذن فيها ثم تركها بعد حين ثم أخذ الطريقة الناصرية على الولي الصالح أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله التزاني ثم تركها بعد حين ثم أخذ طريق القطب الشهير العالم الكبير أبي العباس سيدي أحمد الحبيب ابن محمد الملقب بالغماري السجل ماسي الصديقي نسبا على بعض من له الإذن فيها ثم تركها بعد مدة ثم لقيه في عالم النوم بعد موته ووضع فاه على فيه وهو قابض على لسان الشيخ رضي الله عنه ولقنه اسما في تلك الحالة هكذا سمعناه من سيدنا رضي الله عنه ثم ذكره مدة وتركه اسكي خولل شيخ رضي الله عنه هم قبين بايكو عين ماضي نيوفاس سرين بيم جكا دجل سيري علي حرى ذمنينا مودون مولانا الطيب كوكو ميجي جن أدينا 1180 bi yoneen alayhi salatu wassalam ganee jamono junni at ak téeméer ak juróom ñetti fukk gannaaw ba ca faas ba tey mu daje faak beneen wali yu yàlla boo nga xam ni mi ngi bokkoon ci banu waan jël kooku cheikh jotul jàpp tariqaam juróomi at lañ ci teg kooku it génn àddina mu dajeek beneen nitu yàlla ba tey cafas faas kooku ñu ngi ko daan woowe almadu bibni abdillah kooku ba muy taqalikoog cheikhu tidiane daf ko waxoon ni ko allahu yaxudu bi yadik buur yàlla day sa loxo wax ko ñetti yoon cheikh tidiane waliyu woowu bi mu génne àddina moom moo ko sang ci loxoom sang ko ba pare robal ko boppam ña ngi ko robe nag ca buntu kooku nga xamante ni bii ni moo di waliyu yàlla woowu ñuy wax ahmad al yamani fañ ko denc ca buntu ba foofu la ñu tegoon janaazab kooku nga xam ni moo di ibnu abdillah jullee ko cheikh tidiane nag daal teqali ko ak moom daal di jàpp nag tariqab kii nga xam ni moo di cheikh abdul qadir al jilani cheikh tidiane jàpp na tariqaam lii na ko nit ñi xam cheikh nekkoon na qaadir de jàpp na tariqa Cheikh Abdul Qadir al Jilani jamono waaw ah, pour wax la tax gis nga li sëñ doon wax billahi mooy dëgg hmm. daan wax mu ni bul yokki wala boog bul toqi bul yokki waaw kuy wut yàlla boo sawarul sak am ko wóorul te doo roy Cheikhu Tidiane wax na dëgg ndax xam nga Eh, olof da daan mbonaata xam la ca déeg ba moom mi naan ba ca ban ba léeg-léeg ñu ni moom mi nuur ba ca ban ba waxi dëgg la cheikh lum la wax ci yoon yàlla jàppal ndax fam ca jaar moo tax léegi nag moom lay wax naan summa axasa topp gannaaw ba jàpp na tariqa cheikh tariqa kooku nga xam ni moo di sëriñ ba di mawlana abdul qadir al jilani skay radiallahu anhu yàlla na bur yàlla gërëm ko bi faas ma ngi ko jàppee ca faas waaye nag moom ak Cheikh Abdul Qadir bokkuñ jamono loolu moo tax mu daal di préciser daal di ne ala man nag mi ngi ko jàppee ci loxo ka nga xamante ni bii ni kaana nekkoon na yu laqinu daan sax maanaa daan joxe tariqatahu tariqa kooku nga xam ni moo di Cheikh Abdul Qadir al Jilani wa man ak ka nga xam ni lahu amee na ndigal fi ci tariqa boobu ci di ko joxe waaye ba mu ko jàppee summa taraka gannaaw ba bàyyi na ko moom Cheikh Tidiane baada xiin gannaaw benn jamono rek daf ko jàpp daal di koy bàyyiwaat lolo waral nga deg sama gor gi day santaan ko wax bu mako be am ben tour yalla bu ma ko wan ni ko tour wi nak cheikh mos na ko sikkar xam nga lu ma tegal mbolé tour yalla yi macc na len ba mu salli non lay waxe bat bi dafa xaw nos cheikh tidiane radiyallahu anhu lanima dama ko laaj ni ko ndax tour wi cheikh cheikh Seydi Ahmed Tidiane di di ko sikkar dede déedéet kii oustaz Omar giran la bokkul ah. bokkul ak alxaaj Malick Diop déedéet déedéet bokkul dama kii dama daan dem ci moom daan jàng ah, ah, ah. mboole turu yàlla yi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu màcc na ko ba mu salli ah <laughs> loolu kay yomb naa dégg ah waaw yomb naa dégg de xam nga lu koy dégtal hmm. mboole tariqa boo man jàpp mën nga koo bàyyi te du la wàññi dara bu fekkee jàpp nga tariqab Cheikh Tidiane waaye boo xasee jàpp tariqab cheikhu tidiane boole tariqa yi boo leen jàppoon benn par benn gannaaw ba nga bàyyee tariqab cheikhu tidiane wala yu yàlla ya nga jàpp seeni tariqa ñoo lay duma ñoom cheikh la duma de loolu nit ñi xamul dañuy jaawatle cheikh du la duma tariqaam du la duma wala ya nga dem ñoom bàyyi tariqab tidiane dem di jàpp ci seen tariqa ñoom ñoo duma ñoom barke loolu amul werante ah kay gis bokku ci léeg-léeg nag mooy gën a jàppandi waaw léeg nekk ay soldaaram yu wér waaw yu wér nag mooy gën a jàppandi waaw yàlla xam na ni man de léeg-léeg ma tooñ nit ñi wax leen ko man leen rëcc wu ma ko nag waaye bu démb doon tey day danaa yemandi rek ci ma ñaan yàlla mu may ma ma bëgg Cheikhu Tidiane gannaaw ba ma liggéeyal ko rek ci ñaari baat yi ma mën a firi ci arab muy jottali njàngale mii man lawraat yi daf may sonnal <laughs> waaye nag na ngeen dem ngeen jàpp tariqa tijaan c'est-à-dire man jàngalekat laa xam nga kat buy wax da ngeen di xool wax bi fi mu ko jëmale en fait dama leen bëgg a wax ni même boo jàppee tariqa tijaan sens bi essence bi mooy cofeel gi muy def ci sa xol ak nim lay nandale ci yonent bi alayhi salaam ba doo ko yemale dara nim mu lay nandale ci Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ba nga xam ni moom rek moo di waliyu yàlla loolu mooy essence su jàpp tariqa Tidiane doy na kaafa Cheikh nga bëgg ko doy na walis leneen ah koo xam ni garanti la yonente ko ko wax daf ko ni anta habibi fa kullu man ahabbaka fa huwa habibi yow Cheikh Tidiane samab soppe nga te kula soppati moom moomu samab soppe ah way loolu garanti la yonente ko wax alayhi salatu wasalaam moo ko wax ti Tidiane kon kay doyoon na sëkk nga ñu sopp waaye waaye Cheikh nag daal neexu la sopp di kay da ngay dem ba ci biir da naan moom moo la sopp rek mhm. moom moo la bëgg man loolu laa gëm man waaye du yow yaa ko bëgg yow ndax moo ko wax di Cheikh moo wax loolu di moom moo wax ni yow mi may wan gannaaw di ma di ma won gannaaw di ma dëddu di wax ci man naka su dul noonu li nga nekke teyoo ko mën a de du loo tey de hmm? mu ni bu ma neexoon waxin la yow moomu di ma wan gannaaw li ne ci yow tax nga di bañ muy sa xol dinaa ko wëlbati ci man nga bëgg ma te doo ci man dara ayuha almuridu anna fa in iraadaka minna fa law aradnaka la jaalna kulla ma fika na kon kay ñun bëgguñu cheikh waa ji la cheikh moo ñu bëgg di billahi alazim ah, loolu moom amul werante waaw nun amuñu maqaama bëgg Cheikh Tidiane de kooku moom na leer nañ Cheikh Tidiane moo ñu bëgg waaw waaw radiallahu anhu kay moom noonu la toll di Cheikh Tidiane ah kenn du ko xam fii waaye ba ëllëg ca kanam yàlla billahi balaa yonent bi di ñëw Cheikh Tidiane dina toj làng gi di nga gis loo mosul gis آه، يوم القيامة موم يوم المشهود لا ما نام دو بيسبوك كان دي راتي بو نيك يمن لي واخني اي واخ يو نيه لا ولا واخ بو ري لا يا تي كرام يالا كاي دنا لير وا بو بند بي وري ييب لير كين كون سي بوتي بوب يي غاي كوي غيسي اه بو بابا دان خامني يا تجان ليكو يالا ديفال موم سا خاموكو بالله العظيم موم سا خاموكو موتاخ نك واخ بي لي مي ري ري ييب li muy wundu ak di ko jàngale ak fa mu jëm mooy ñi aju ci moom nañu am nañu xam li ñu am nag te fonk ko nag te góorgóorlu ci te ñàkk ko te ko te fexe mu dem nag loolay wax ji toog noonu rek ni ah waay loolu it kenn xamul lu mu doon ah baal ma nag <laughs> xam nga yëf moom waaw alaaj moom waaw ah, léeg mu xaw ma roof benn kii tuuti waaye baax na ci waaw ah baax na ci kon nag mbokk yi nañu xam ni Cheikh Tidiane jàpp na tariqa Cheikh Abdul Qadir al Jilani gannaaw ba mu bàyyi ko moom lay wax naan axaza jàpp na tariqa Cheikh yoonu Serigne boobu di Mawlana Abdul Qadir al Jilani radiyallahu anhu bi faas faas la ko jàppee ala yadi man kaana yulaqinu tariqatahu ci loxob ka nga xam ni ca jooja jamono moo daan joxe tariqa boobu di tariqatul qadiriya wa man lahu l idnu fiha ak ka nga xam ni amoon na ndigalal joxe ko summa tarakaha topp mu bàyyi ko baada xiin gannaaw jamono gis nga précision yi c'est des précisions de taille yoo xam ni c'est très important ci yoonu yàlla xam nga li mu ni ala yadi man kaana yulaqinu wa man lahu l idne waaw kay parce que nag tariqa du caagandi da nga gis benn waay bii rek sopp nga ko neex na la nga dikk jàpp ko ci moom te moom amul ndigalal joxe ko jàppoo ci dara non non muqaddam dafa am am ijaza ak nekk muqaddam bokkul cheikh muqaddam yi la wax nañ ko xoolee muqaddam yi waxul nañ ko xoole ñi am ijaza wala budda min taadimi kulli muqaddamin waxuñu min taadimi kulli di ijazatin dem leen ci taaye bi nga xam ne seen maam yi moo def waaw dem leen ci yaqutatul farida daf fala budda mënta ñàkk min taadimi kulli muqaddamin mboole muqaddami cheikh yi dañ leen a war a màggal Tiwaawan nga ajoog euh, Kaolack nga ajoog Fass nga ajoog Afrique du Sud nga ajoog ça c'est pas le problème le problème c'est Cheikh Tidiane moom mi nga xam ni moo incarné tariqa Tidiane nu waay mën a ajoo ci moom te dip muqaddamam des laa war a màggal lii cheikh a ko wax moo tax mu ni fala budda min taadimi kulli muqaddamin mboole muqaddami cheikh yi dañ leen a war a màggal وكل خليفة بول خليفة الشيخ سيد أحمد تجاني دان لنا ورا مغال شيخ ني مو تولو موس فوغا ني مونا ام بن خليفة اوا آه، يي يتم لول داف مون نيك داف مونول نيك لب لو شيخ نيك وون كوكو تي ووتو خليفة امغا شيخ دا جانجلي شيخ دا يار نتني ني شيخ دا دان ييغي نيت ني شيخ دا دان ديمبلي نيت ني با lépp lool Cheikh Tidiane da koo nekke woon képp ku ko wuutu ci loolu xalifaam nga ba ci lawraat yi cheikh yi daan def ahzab bu awraat bii bari na ñoo xam ne am nañ maqaamul xilaafa ti ci lañ ko amee bokk yi eh, faw góorgóorlu nag mën ta ñàkk di waaw mën ta ñàkk di mën ta ñàkk di kon nag ah mu ngi noonu rek dégg nga loolu Muhammad Nazif wa kulli xalifatin mbolé khalifa cheikh yi dañ leena wara magal min insin mo xam khalifa yi nga xamni ay nit lañu wa jinnati ak khalifa yi nga xamni ay jinne lañu ha waaw Cheikhu Tidiane dafa am ay khalifa yo xamni ay jinne lañu duñu ay nit lolou mom du lu reuy dedet lolou du dara waaw lolou mom moom suñ Babacar ci jamonoom bari na jinne yo xamanteni bi ni mo leen daan defal ay ijaza waaw ijaza yu bari moko daan bind ci loxom ci loxo bopam la wax dal len def ay muqaddam ah loolu mom moko wax di loolu du luñ ko sosal du ko loolu rëyul loolu cest dire xam nga nit aussi tam do def rek lu amul wala fo yegul nga defé ni ken amuko nga defé ni ken yeggu fa wala nga ni faf sax manuta nek hey xam nga lu lolou loolu mën nit nak da ngay góorgóorlu ci walu yalla pour meuna xam ndax yenn yi mën na nekkam c'est ça aussi alors kon nag nee na Cheikh Tidiane radiallahu an jàppoon na tariqa Cheikh Abdul Qadir al Jilani thumma tarakaha baada xiin gannaaw benn jamono nag benn benn benn moment mu daal di koy bàyyi ba mu ko bàyyee ndax dafa dafa toog lal daara ni léegi yegg naa yàlla dama yeggale déet déet summa axaza tariqata nasiriyata cëm xam nga ne bu ñu naan Cheikh Tidiane góor yàlla la billahi al azim kenn jayu ko dëgg la ndax képp kuy góor yàlla jël na boppam bi jonj ko ci sa bopp waaw waaw loolu moo tax mu ni summa topp gannaaw ba axada jàpp na ab tariqata nasiriya tariqa boobu nga xamante ni bii ni moom lañ daan woowee an ala alal waliyi mu jàppee ko ci loxo waliyu yàlla ba asaalixi ku baax ka di abi abdillah sayidi muhammad ibni abdillah attizani kooku moo ko jox tariqa an nasiri summa tarakaha topp mu daal di bàyyi tariqatu nasiriya bada xiin gannaaw jamono la ilaha illa allah ki kay xam nga ni buñ la né mbolé turu yàlla yi màcc na ko ba mu war nga xam ni du ay wax yu reuy wala ay jay mais c'est tout à fait vrai nga defé ni bimu jappé tariqa bi nga xam ni moy tariqa Cheikh Abdul Qadir al Jilani bayiko jàpp tariqa limam na ni ngi koy waxé ci tariqatu nasiriya bàyyi ko dafa tok de togul de ثم أخذ طريقة القطب الشهير shahii الكبير أبي العباس سيدي أحمد abbasi بن محمد الملقب بالغماري السجل muhammad الصديقي mulaqabi nga koo xam ni <laughs> ay la Serigne Cheikh Tidiane si daan wax mu ne bu ñu waxee naan dañ ma sol wala moom day moom jàngul xel mee rëy mun leen génn leen seen caaxaan yi laa wax man mboole yoon wu nit di jaar pour xam ak lépp lu nit di jottali ko pour xam waxuma ni la jottali naa ko testé na ko examiné naa ko dugg naa ba ci biiram yëlëb ko ba xam la ca nekk lan la afnaytu asbaab alxayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaa'il al irfaani Cheikh Tidiane nii nag turandoom non nii la def non nii la def loolu moo tax mu daal di nit ni fu ma axada topp gannaaw ba jàpp na moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu طريق القطبي يونو سانغ بوبو الشهير كسيوك العالم بروم خم خم الكبير كما قلت يلا أبي العباس لدون سيدي أحمد لنك دان ووي الحبيب ابن محمد الملقب كان دان دكن تلي بالغماري غماري لنك دان ووي جامنوم طريقام شيخ سيد أحمد تجاني جابونكو waye man ko jàppee rek ala baadi man lahu ci ñenn ña nga xamante ni biir ci jojo jamono amee woon nañu al izn ndigal fiha ci tariqa bobale waye bam ko jappé summa topp gannaaw ba taraka bàyyiwaat na ko baada mudda gannaaw ab diir waaye gis nga ba mu ko bàyyi de bés dafa tëdd guddi daal di gént waliyu yàlla boobu di Ghimari ba mu ko géntee kooku dal di koy sa bentur yàlla kii nga xamante ni bii ni mooy Seydi Ali Haradine jamono bii mi ngi ànd ak Cheikh Tidiane foog ngeen xam loolu Seydi Ali Haradine Fass la dëkk xamante nag Cheikh Tidiane lu yàgg Cheikh Tidiane soog a daje ak yonente bi alayhi salatu salaam noonu la demee jamono bii moo mi ngi takkoog Cheikh Tidiane looloo tax mu mën a xam lii dégg wax mu ni moom Seydi Ali Haradim cheikh ba mu jàppee tariqa boobu nga xam ni mi ngi ko jëlee ci walu yàlla boobu di alximaari daf ko bàyyi ba mu ko bàyyee tëdd guddi moom la naan summa laqiyahu topp gannaaw ba dajee na moom cheikh Seydi Ahmad Tijaani ak walu yàlla woowu fi aalami nawm ci monde boobu nga xamante ni bi ni mooy monde nelaw monde nelaw nag bari na koo dégg muy weddi nan la xam nga ni mos ay nelaw loo ci jëlee nangam subhanallah xanaa xamuñu ni yonente bi sallallahu alayhi moo waxoon ni géntu ku waaju baax dafa ni géntu ku baax gu bàyyi ko ci waaju baax mi ngi bokk ci fanweer ak juróom benn xaaj yi nga xam ne ñoo composé nu bu watu nu bu watu dañ ko def ay partie wala ay portion partie yooyu wala portion yooyu yi nga xam ni ñoo ko composé wala entité yi nga xam ni ñoo composé nu bu watu daf ca bokk ar ruya saalih min ar rajuli saalih gént gu baax gu bàyyi koo ci waaju baax waaw hadith bii may wax ni da ngeen di dem ci tafsir bi nga xamante ni bii ni euh, euh, l'imam Qurtubi moom la liggéey dem leen ci bu ngeen ci demee bi muy tafsir sootu Yusuf ci inni raaytu ahada achara kawkaban boole hadith buy wax ci wàllu ruya ca la ko wax dem leen ci rek ngeen seet ba xam di ngeen xam ni mbiru gént ku koy weddi xamuloo li xew de ko koy weddi xamuloo li xew de nga wax bi looloo tax mu ni su ma topp gannaaw ba laqiyahu dajana ak moom fii aalamin mi ci gént بعد موتي غناو بوم فاتو موم غيماري ووضع متك موم سير موم سيرن بوبو فاخو غيمني ما على فيه تي غيمني شيخ تيان وهو تا موم قابض ماغي نوب على لسان الشيخ تي لامني سيرن بي رضي الله عنه ولقنه مسكو اسما او تور في تلك الحاله تي بوبله انام موي تي اي نلاو لو شيخ غنت غيسكو مو جاب تي لامنيام جيل غيمنيام دب تي غيمني شيخ تياني دال دي كوي سا وين تورو يالله mu ni hakada nii ma ko waxee man Seydi Ali Haradim nii la demee mu ni sami'naahu noonu laa ko digg ci sama nopp min sayyidina mu bàyyi ko ci suñ sang ba Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu waaye xoolal Cheikh Tidiane ak lii li muy rëy rëy rëy ak fi mu ko jëlee li muy kowe kowe kowe summa topp zakarahu si karratur woowu tarbiyé na ko muddatan benn diir wa tarakahu mu daal di koy bàyyi pour wax la kon nga xam ni cheikh du woon koo xam ni mbokk yi eh, li li ma wax léegi li koy wanee ngi limani la sama gor gi dan wax nan ba ma nekk tur yi ndax cheikh mustafa sekar mune sikar mu ne ma mboole tur yàlla yi màcc na ko ba mu sàlli waaw loolu rek doyna ci firnde su ko defee nag sëriñ boobu tuwafiya faatu na al cheikh serigne bobu al madhkur serigne bobu ñu tudon ma nga fatu rabi al muharram ci ñentelu fan ci ci ci wéru muharram عام xamsatin wa sittina wa miatin wa alf ci atum ba yonoon gàddaaye أك mu teg أك ak téeméeri at ak juróom ñett ak juróom benn juróom summa axada topp mu daal di jàpp moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu 1165 ci ah mais c'est très précis parce que dafa war a précis nag moo tax boo gisee képp koo xam ne dafay jug di wax ci téere bii naka dul noonu wala muy wax ci Cheikh Tidiane naka su dul noonu Tidiane yëpp toog ni pat man dafay jaaxle qu'est-ce qui se passe waxuma ngeen génn di rayante kenn waxuma ngeen génn di saaga kenn mais li nga xam ne moom la ñu bind mu leer mais wax leen ko xale yi ñu xam ko nee na nag summa axada topp mu jàpp moom Cheikh Tidiane anil waliyi saalih ci góor yàlla googu nga xam ni ku baax la ku yàlla baaxal la almalamati kooku nga xam ni gisee melaw dof la yor malamati boko ko déggee mooy koo xam yàlla bu mag la ci yàlla waaye boko ko gisee melaw dof la yor melaw dof ko maam Cheikh Umar radiallahu an noonu la melon ci ay jamono waaw ba léegi sax am na ñoo xam ne ñu ngi koy gis man am sama benn xarit bu dëkk fii Liberté 5 maam Cheikh Umar radiallahu taala anhu yoonu yoonu makkaam wu mujj wi ñëw na ba ci moom tàgg ko li wax nekkul lu yàgg de ki may wax mi ngi dund de c'est un jeune te man giñ naa ni li ko may loolu bokk na ci takkoo waxtu yu juróom ca jàkka ja ak mbalaani wasifa kooku du ko tardé kooku moom mën naa ko seddal loolu man xam naa ni li ko may loolu lii ci la bokk sama xarita day ñëw ci man di jàng si kon kay xam naa ko te yàlla xam naa ni fenul li mu wax dëgg la maam Cheikh Umar radiallahu anhu bi mu yoonu Makka mu mujj wi ñëw na ba ci moom tàgg ko ni ko damay dem Makka xam naa dina toog ay fan duñ gisante man ak yéen ah loolu dafay def loolu xam nga yooyu nag bu fekkente ni bii nii amuloo ko tax nga bëgg a nit ñi ni kenn mënu koo am mais ça pose problème dégg nga malaamati yu kooku bala wali yu woowu nag mi ngi tuddoon Abil Abbas la tuddoon Sayyidi Ahmad at-Tawash la tuddoon nazir Taza ma nga bëgg a dëkkoon ca Taza wa biha ca dëkk boobu it tuwafiya la faatu moom sëriñ boobu laylata thamina guddik juróom-ñett wala ba guddik fukk ak juróom-ñett muy le 18 min jumaada al awal ci weer woowu ñuy wax jumaada al ula aama arbaatin wa miatayni wa alfin nee na ci atum junni ak ñaari téeméer ak ñeent ca la génn addina 1204 hijriya wala qanahu nee na ca la sax moom Cheikh Tidiane moom sëriñ boobu sana Cheikh Seydi Ahmad Tidiane isman aw tur muy aw tur yàlla وقال مغنيك إلزم الخلوة والوحدة والذكرى واصبر حتى يفتح الله عليك فإنك تنال مقاما عظيما <laughs> واو واو دفكوني إلزم نغا تقو الخلوة ويتاي تقو الويت والوحدة تقو دي نك يورك والذكرى تقول دي تدو يالله واصبر واي واي نغا مون يو شيخ تيجان حتى يفتح الله بكرو غاي ايغي تي يالا اوبي عليك تي يو نيكو فانك ورنت امول تي ني تنالو بيس غاي نيو داغا ام مقاما عظيما مقام بو ماغ تي يالا لغي خنا نون تيجاني صاح ولا بوك نين نين ني بوج نيك اي تيجان خنا بو ني ووتيلول شيخ تيجان در wa nan ko waxal li nga xam nit yàlla yi ko wax ci seen jamono ñom du ni tidiane ci zahir en fait c'est ça parce que nak bu fekkon tidiane ñom ñu dik taxaw waxal li Cheikh Tidiane ça pose un problème mais ñi ko wax moy ñi nga xamni ci jamono du bo wax tariq tijaan sax amagul waaw ñoom ñoo ko di fa innaka tanalu maqaman azima da nga am maqam bu ko ci yàlla waye nak ba lolu amé falam yusaaifahu sayiduna radiallahu anhu fa qaal إلزم هذا الذكر ودم عليه من غير خلوة ولا وحدة فيفتح الله عليك على تلك الحالة فذكره سيدنا مدة وتركه مالك وحدة كوكو شيخة من فلم يساعف دمبلان تول falam سيدنا سن dimbalantewul رضي الله عنه sunu sëriñ ba radiallahu anhu maanaam dimbalantewul ji il était dans l'incapacité de le faire muy lan fu mu toll di tëju ak di wet cheikh il ne pouvait pas faire ça en ce moment là parce que condition yi wara daje pour mu def ko amuko won waye serigne sëriñ taxul mu bàyyi daf ko ne يلزم تقول هذا الذكر tur wi ma la jox zikar bii ma la jox tariqa bii nga jàppee ci man nang ko taqoo wa dum alayhi nang ci sax min gayri xalwa soxlawul ngay wéet wala waxda soxlawul ngay nekk yow rek terewul fa yaftaxu dana ubbi allahu buur yàlla alayka ci yow ala tilka alxaala ci anam gii mooy lan même boo wéetul wéttalikuloo yow dong toowoo yow kese wéetoo terewul yàlla subhanahu wa taala dana la ubbi nee fa zakarahu si karna tur woowu sayiduna sunu sang ba di Cheikh Seydi Ahmad Tijani muddatan ab diir wa duwa waaye wa tarakahu bàyyi waat na ko maa la ko wax kooku cheikh bàyyi waat na ma nga jëmaat ci leneen tur wu mu sikkar ba toog ci kaw jogara ja dana ko wàcc war beneen maa la ko wax noonu la meloon moom Cheikh Tidiane dégg nga bi lolo tax muni wa waqa neena tabina lana diñu ñel maahu andak mom radiyallahu anhu yàlla bur yàlla gërëm ko lan mo tabbi muni karamat ay karama adida yu bari wa sami'tu déggoon naa man Seydi Ali Harraazi minhu mu bàyyi ko ci Cheikh Tidiane maa loo xam ni yumbi u nee na dina xibaar dana dana ubbee an tasrifihi ci ay sopparñikoom fii tilkal balda ca boobale dëkk nga xamante ni bii ni fal daje woon ak sëriñam boobu nga xamante ni bii ni moo ko ne woon fa innaka tanaalu maqaman azima dëkk boobu doon taaza dégg nga wax bi nee na wa axbarani xibaar na ma bi ma ca la nga xam ni yasiluhu dana ko am dana ko jot a cheikhu sëriñ bi radiallahu anhu min al maqamat sëriñ ali may wax nee na man ma la Cheikh Tidiane mais sëriñam bii mu dajal ci taada man ci boppam wax na ma xamal na ma ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu basa ngi ñëw boo xamante ni bii ni maqaama sangam ak maqaama sangam dana ko jot dana ko am dana ko war rëpp tël ko ci biir nitu yàlla yi te kenn du ci mën dara looloo tax mu ni wa axbarani xamal na ma bi maa ca la nga xam ni yasiluhu dana ko jot dana ca yegg alcheikhu sëriñ ba radiallahu anhu min almaqaamaat yi ci ay maqaama xatta ra'aynaaha ba ñu teg sunu bët ca maqaama yoo yele ñun mu ni walhamdulillah wa lahul minna walhamdulillah wa lahul minna walhamdu dëgg dëgg cant lillahi aji sax la ñeel bur yàlla walahu te amee na te ñeel na ko te yayoo na te jagoo na moom bur yàlla al minna loolu nga xam ni moo di ak xéewal te comme yàlla nag moom dongo jagoo sant moom yàlla moom dong moo jagoo xéewal waaye yàlla mënul jël ci xéewalam yooyu mu jox ko ab jaamam ba bu bari waaw jeex na kon kay jeex na jeex na jeex na e mbokk yi tabarakallah euh, bu ko defee rek xam naa ni ci lancé bii nii wax ji sax daanuwul man maay daaneel foofu rek waaw c'est dans cette lancée bu ñu bu ñu dajawaatee incha allah ci yeneen waliyu yàlla yi nga xamanteni ne bii ni ñoom la dajeel kenn ku ci nekk mu wax la mu jëflante ak yow ak ba mu bàyyi ko foofu nag moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu léegi nag daal di tuxoo Maroc nag daal di dem ci Sahara bi muy désert bi am nitu yàlla bu mu fa dajeel sax fa ab diir tuxoo foofa dem Tilimsaan tuxoo Tilimsaan nag daal di fas yéene aji néegub yàlla ba subhanahu wa taala léegi nag incha allah la xew ca digënté bobu ak dig-digal bobu ak nitu yàlla yooyee mu dajal bu yàlla maye tawfiq ñu dajawat dañ ca leral ala qadri ilmina e bu ko defé ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla defal ñu gàtt-gàtt li ñu fi doon def mu dig jaamu yàlla gu sel képp koo xam ne yaa ngi koy déglu mbaa nga koy bégee yàlla na ko yàlla def muy aw yiw woo xam ne daana ko dana ko dugal ala misana xasanatik yàlla na ko yàlla defal ci barke alquran yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko defee commentaire yeeg jaajëfal geeg encouragement yi et tabarakallah ak woote yi addina wërngal këpp ñëpp ñëpp ñëpp rek macha allah waaw ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy jot maa ngi ñaan sama borom tabaraka wa taala yal na yàlla yokk suñu cofeel gi Cheikh Tidiane ndax mooy luy sauver addina mooy luy sauver alaxira te bala koo nit a xam mbete mu dugg bàmmeel maa la ko wax maa la ko wax man man El Hadj Omar mës na ma nettali benn benn nitu yàlla boo xam ni dafa dafa génn àddina ñu denc ko muy taalibe Cheikh tijan fañ ko denc gis nga ñamu tëddandool yàlla subhanahu wa taala ma nga leen baal jéggal leen yóbbu leen aljanna laa wax de branché leen ay rigol yuy bàyyi ko ci aljanna ci seen biir bàmmeel mais gis nga bañ leen laajee yéen ñii li rëy lii ngeen am lu leen ko may te am na jamono amu leen ko woon ñu ni parce que dafa jamono day dox ba am bés am benn taalibe Cheikh Tidiane bu génn àddina ñu denc ko ci barab bii loolu la ñu yàlla jéggalee loolu la ñu yàlla baalee mbokk yi kon Cheikh nu mu war a toll ah te noo génn ci caaxaan yi hmm, ah baax na yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla dimbali allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaq ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim